mbokk yeeg xarit yi ci ànd bi ak teew teewlu seen chaîne mbégte lay nekk saa su ne ñu dellu siwaat ci rendez-vous bi leen la rédaction du proposé muy votre MAC sport sport sur 7 tous les dimanches à 21h ma ànd ci nag ak Alaaji Grégoire euh, Alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar euh, di la baalu àq ci carême bi ñu tàmbali di la baal àq. baal naa bu baax naka noonu tam ci mbooleem sénégale yi nga xam ne maa di nuyu di leen jox seen wàccuwaay tam ci libér gi di nuyu tamit képp koo xamante ne jàmm laa bokkal plateau bi. jërëjëf euh, Alaaji Grégoire Ngom euh, ni mu ko waxee euh, noonu aussi la ñuy àndee chaque dimanche ak Babou Ndour à l'international tey tamit l'international bi da koy denc ndax dafa am beneen ancien international bu nekk ci plateau bi Babou may lay nuyu di la ziar di dalal jàmm. merci beaucoup Adja di la delloo ziar di la fay bu baax a baax am mbégte bu baax a baax janoo yow comme ni ko defee tous les dimanches tamit euh, demaat mbégte janoo ñi nga xamante ñoo ñu seetaan tous les dimanches seen magazine bi nga xamante ne ñoo ñoo ko tàmmul seen bopp di li nga xamante ne moo di sport sur 7 nag mais sport sur 7 ki nga xamante mooy sunu kilifa am na beneen beneen affaire yoo xamante ne bon fin <laughs> bul yàq émission bi itam bàyyi noonu rek. li li nañ ko bàyyi noonu. <laughs> jërëjëf euh, merci beaucoup tey ñu amati mbégte ak contenté ndax bokk na ci ponk yi ñu nara waxtaane euh, li nga xamante ne moom mooy ndaje bu solo bu ANPS rawatina njiit li di Abdoulaye Thiam dalaloon fii ci Ndakaaru ndax euh, Dakar était la capitale de la presse sportive africaine ndax AIPS. AS euh, Afrique euh, dañu amaloon congrès 23 24 et 25 dinañ si ñëw largement dinañu ñëwaat aussi ci cette élimination malheureusement des lions du basketball euh, par contre au niveau du football ça marche dinañ dellu siwaat ci secret yi avec euh, cette qualification euh, cette qualification sax avant l'heure euh, des lionceaux dinañ ko terminer ak làmb ndax ñi ngi jëm ci bés bu am solo le 5 mars mu war a dalal ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg ak Sa Thiès euh, bu école de lutte Balla Gaye numéro un dinañ ci ñëwaat rawatina incident yi nga xamante ne note nañ ko démb ci seen dernier face à face tey nag ñu am mbégte ngir waxtaanee ponk yooyu yëpp dalal l'ancien international sénégalais Vieux Ndoye du basketball demoon na ci benn sax ci coupe du monde bi nga xamante ne Sénégal euh, bokkoon na ci euh, donc Vieux ñi ngi lay dalal jàmm ci plateau bi euh, rafetlu ni ñu nangu nangulee sunu invitation di la bàyyi tamit nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw. di la fay bu baax Adja di nuyuwaale ñi may partagé plateau bi et puis di souhaiter bon carême à Grégoire et la communauté chrétienne euh, du Sénégal donc comme ni nga ko waxee rek euh, di am mbégte di fi ñëw euh, comme li ñuy wax rek affaire bi ñun ñëpp ko bokk donc euh, ku ci mën ñëw jàpp ci rek da ngay ñëw jàpp ci incha allah absolument merci beaucoup Vieux ñu ngi ak Cheikh ay dara moom le présente plus il fait partie des consultants de cette chaîne ñu nar a waxtaan ak moom aussi ci la partie football waaye aussi dina ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy gala ay AIPS Afrique bi nga xamante ne ki a vécu c'était hier à l'hôtel Terrou-Bi mais balaay loolu Cheikh Oumar ñu dalal la jàmm ci sa plateau. grand bi avec beaucoup de respect ah <laughs> donc international ça tout dire <laughs> surtout quand tu fais une coupe du monde donc mhm. il y a très grande considération autour de ça mhm. di nuyu sama gars <laughs> sama ñaari gars yi quoi Grégoire ak euh, Babou nga xam ne ñoo koy ñàkkante quoi <laughs> ci compétition yi. <laughs> di nuyu tous les téléspectateurs. di mën coupe d'Afrique coupe d'Afrique coupe non toutes les compétitions ah, waaw ma <laughs> ñu gérer bi mooy gérer ci kaw ñu gérer ci suuf quoi donc c'est un plaisir de revenir. merci beaucoup merci beaucoup cher Omar euh, on devait aussi recevoir euh, Serigne Saliou Dia moom mooy tàggat euh, gaynde yi am moins de 17 ans mm-hmm. mais malheureusement sànq moom aussi dafa am. ab ñeesam bu wàcc liggéey ñu ko koy jaal bu baax di ko jaal seen famille yépp di ko ñaanal mm-hmm. yal na ko sunu borom xare ajana bu ko defee ñu daal di tàmbali euh, baabu mais tout à l'heure aussi maa ngi liir ci forum ANPS bi am na aussi une ancienne gloire euh, du handball sénégalais tout à l'heure euh, dinañu si ñëwaat moom aussi mu wàcc liggéey tout à l'heure l'information est tombée on va revenir sur ça avant de terminer mais balaay loolu dañuy ñëwaat ci rencontre bu am solo mu soxal la presse sportive africaine Euh, effectivement Adja amoon na ñetti fan yaa ngi ko ci sommaire bi mu nekkoon premier jour bi amoon na ay panel ñi nga xamante ne autorités yi teewoon nañ ko ñaareelu fan bi ñu jagleel ko ñi nga xamante ne moo di reporter sportif yi ñu yaaru ay soxna ajabité yi nga xamante ne ñu ngi dem ci compétition yi troisième jour bi nag moo nekkoon li nga xamante ne moo nekkoon vote bi vote bi nag ki nga xamante ne moo di suñu président président ANPS di Abdoulaye la presse sportive section moom rek mu ngi doon xëccoog benn naar benn journaliste maanaam mauritanien mooy Mourad Moutakil moom daal dafa mujjee désisté bàyyi ki nga xamante moo di président Abdoulaye Thiam euh, moom bu a soxal mooy mu boole ñi nga xamante moo di journaliste afrique tàbb mhm. pour mu jiite li nga xamante ne moo di association internationale de la presse sportive ñu jagleel ko Afrique ndaxte kii di concurrent journaliste marocain bi daa mujjee retiré aussi course bi ba tax na mu doon sénégalais bu njëkk bu diriger poste bi ni mel loolu tax muy ne li nga xamante ne moo di ay ambition bi si la ëppee doole euh, tey jii boo leen dégloo discours président sortant bi daanaka benn dërëm amu ci su compte bi te loolu man fas yéene wu ma quatre ans après wala su fekkente ne renouvelé ban ko en tout cas su may jógee foofu man fas yéene indi fa leneen. teewul mu ngi lancé journal sportif Afrique yëpp ñu jàppale ko ci mission bi ndax mu mën a concurrence yi ñi nga xamante ne ñoo di waa Europe ak Amérique du Sud. fexe ba am association boo xam ne du ñu ñee tey jii américains yi du ñu ñee européens yi du ñu ñee asiatiques yi parce que boo xoolee obi ci biir AIPS képp ku nekkul Afrique pour nga jënd carte dangay fay 40 dollars il n'y a que ñun africains qui payons 10 dollars ba pare encore ñu yore ay bor. loolu aussi wax dëgg yàlla dañ si war a taxaw ba képp ku ne day dugg ci comité exécutif bi ëllëg ci biir doo taxaw di daw ci ginnaaw président bi. beneen ambition boo xamante ne soxal na kii di président Abdoulaye Thiam moo di ñu dekkal partenariat yi nga xamoon moo amoon AIPS ay AIPS CAF ak ay AIPS FIBA ndaxte daa jàpp ne pes Afrique. nit ñi war di déglu lañ. nañ fexe ba rétablir suñu relation avec CAF mënuma comprendre tey nga li yore AIPS amoo benn relation avec CAF soo xoolee Sénégal premier vice président c'est c'est un Senghor c'est Senghor lu tax mënuñu déplacer dem ba waxtaan ak ñan xool ñun lan lañ leen mën a apporter ak ñoom tamit lan lañ mën a apporter en terme de formation et de renforcement de capacité suñ jógee foofu ñu dem FIFA Fatma Samourad ñëpp déglu nañu message am man am naa ci mbégte ak contentement bu ne bu la ndaxte lii di AIPS Afrique daa toog lu yàgg tamit amoon ay jafe-jafe pour am xaalis pour wéy li nga xamante ni moo di ay activité am voilà ngeen gis noonu le bureau wala COMEX bu AIPS Afrique avec désormais à la tête le Sénégalais Abdoulaye Thiam mu nekk jéego bu am solo une reconnaissance de la presse sportive sénégalaise nga xamante ne dynamisme am c'est pas parce que dañ ci mhm. bokk kenn dootu ko natable euh, fii ci dendu Afrique donc mu nekk une récompense d'abord par rapport à son vécu jaar-jaaram ci bopp à la tête aussi euh, de cette association mooy association nationale de sa presse sportive sénégalaise ñu gis bi mu ñëwee aussi mu yokkaat ci beneen beneen suuf par rapport ak li nga xamante ne moom mooy suñuy organisation bu ñuy dem ci compétition yeeg yëpp ce qui lui a cette fois-ci li nga xamante ne euh, moom mooy euh, beneen poste bu bees beneen nouveau challenge à la tête de l'AIPS Afrique Babou effectivement Adja parce que ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Thiam am na maanaam am na sas bu rëy rëy parce que imagine toi ki nga xamante ne moo ko moom moom la wutu di Miss euh, di Michel Mobi mm-hmm. def na maanaam foofu juróom-ñeenti at juróom-ñeenteet yoo xamante ne vraiment nekkoon def na def na kéem talaay kàttanam pour réussir li nga xamante ne moo di image yu AIPS Afrique mais kii itam moo li ma wax sas bi mooy président Abdoulaye Thiam imagine toi que dafa 9 ans 9 ans yoo xamante yaa ngi fay dem bàyyoo fa 1 franc

émission maanaam féminine ba noppi tamit nee na tamit dina ubbi la euh, buntam ñi nga xamante ne ñoo di maanaam sage yi comme ay président ay doyen comme ay yeneen doyen yoo xamante ne ñu ngi new ñu ngi bokk ci organisation bi pour ñoom tam pour ñu mën a jëmmal li nga xamante ne mooy maanaam AIPS parce que dafa jàpp ne AIPS tamit yeneen yeneen maanaam a gën di góorgóorlu di bañ di wéeru ci ñi nga xamante ne mooy mooy président mooy président bi nga xamante moo di AIPS Afrique parce que dafa jàpp ne boo euh, boo suñu voté yow boo participé wul boo dul cotiser doo bokk ci li nga xamante ne moo di maanaam si si parce que am na ñaari dëkk yoo xamante ne bokkuñu si muy Mozambique moom maanaam 21 pays la ñu woon mais 19 nga xamante ne moo di vote parce que ñoom dañu daan na ñu ne maa ngi bokk commission AEPS alors que tur bi kese moo nekk lan nga profité di dem si li nga xamante moo si voyager consort leen daal loolu daal war nañu ko mën a xeex bu baax a baax Adja alors euh, Cheikh Oumar yow fekkoon nga quelques jours ci li nga xamante ne euh, moom mooy euh, congrès AIPS Afrique bi ban ban impression nga ci nga ci am oui une continuité du du a été que xam nga ANPS d'abord dafa nekk organisation journalistique boo xam ne au niveau de l'Afrique pas Afrique de l'Ouest kese mais dama naan Afrique actuellement dafa nekk une organisation de référence mm-hmm. organisation yu bëri ci sous-région bi dañuy copier un peu ce que l'ANPS de faire depuis les dernières dix années on a vu en termes de couverture ci compétition yëpp compétition yëpp ak catégorie bu mu mën di doon on a une présence massive des journalistes sénégalais yoo xamante ne ils abattent un travail très très excellent di indi tey benn euh, niveau communication boo xamante ne c'est très satisfaisant parce que en un certain moment wallu euh, journalisme au Sénégal c'était pas trop développé il a fallu que nit yi organiser wu autour de la NPS et puis def ci li ci war parce que tu peux t'organiser mais soo indiwul li ci war du dox donc bu ñu organiser wu maintenant Ablaye il a été stratégique après Koumé bu mu ñëwee il été stratégique teg ay comité yoo xamante ne day day dund avec la commission féminine bi nga xamante ne yéen ñëpp ci ngeen nekk di def liggéey bu bu mucc ay parce que aussi journal presse internationale sportive dafa soxla woon donc euh, l'implication des femmes dans ce travail ko embellir davantage ba tax na dans les points de Ablaye jeté naa ci benn clin day gis naa ci loolu dafa nekk benn poñ boo xam ne poñ bu mu jox solo la parce que ci AIPS Afrique bi nee na bon taxut woon mu demee noonu xam naa ni loo tam bokk na ci projet yi muy mettre en œuvre mais dans tous les cas c'est une très belle victoire donc mm-hmm. le Marocain je pense qu'il a compris la diplomatie sénégalaise aussi qui est qui ba tax na xëy na mu mu mu def ko il s'est mu def ko mm-hmm. mu gën a rafetee mais mm-hmm. Ablaye on a largement confiance en lui yéen ñi nekk autour de kenn kenn kenn naatable loolu ba tax na gëm nañ ni il va faire quand même des résultats au niveau de cette nouvelle instance. en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite euh, vieux euh, par rapport peut-être gis-gis euh, bi nga am surtout on a vu tout un pays qui a compris l'essentiel def bloc derrière son fils muy Abdoulaye Thiam pour le porter à la tête de AIPS Afrique. waaw xam nga Sénégal moom daanaka looloo fi mës am cest à bi ñu juddoo fii lañ ko fekk cest à bu suñu benn doom soxlawee. ñëppay ñëw ci gannaaw jàppale ko dooleel ko mhm. puus ko pour mu jël ndam ni te xam nga man damay wax tout le temps que ne euh, ñun en Afrique yàlla daf ñu may daf ñu may lu bari ñun Sénégal chaque fois may joxe exemple par rapport ak journaliste sportif yi damay delluwaat 2011 bi ñuy préparé afro basket bi ñu nekkee sur Paris y avait un journaliste euh, qui nu mu tudd ci dama ko tàmm tooñ ba nga xam ne ne en tout cas y un de nos joueurs dafa jékki-jékki jël ay bagages am daw dem mu daw dem journaliste bi gis na fa la ko fekk mais ñëpp ñi ngi ragal ne dina fuitel information dina ko yónnee Dakar. c'était pas Wuri Diallo. Wuri. Euh, te mu nekk États-Unis léegi te ne woon populaire la. Amedine Sy Amedine ko mollee on salue de passage mais bi mu ko yëgee mais man la njëkk ñëw sama néeg dama booy dama lay wax dara ñun certes ay journaliste lañ mais du ñu journaliste u scandale ay journaliste sportif lañ ay patriote lañ d'abord gis nga lii ci ñun lay yem du génn continuer leen seen travail dinaa wax ak dirigeants yi wan leen affaire bi c'est quelque chose boo xam ne dafa waroon arrivé arrivé na mm-hmm. mais continuer leen nañu dem afro basket bi moo ñu intéressé juste pour wan la pour magnifier professionnalisme gars yi man de toute façon la presse sportive moom <coughs> aw ma ci ku ma ci amal xaar na yàlla de mhm. ñëpp samay waay lañ waaw ça moom mën naa leen ko témoigner donc Ablaye moom il a un chantier mhm. et puis il a de l'ambition donc euh, te nguur gi aussi euh, li muy defal presse sportive gisuma en Afrique beneen association de presse sportive bu seen nguur di ko defal parce que quand loolu aussi rôle état la quoi état war na mën a jàppale gars yi pour ñu véhiculer l'information la bonne information parce que Sénégal ñëpp sport leen intéressé boo demee village maire koo xam mu ne la Sadio Mané donc mm-hmm. ñooñu dañuy bëgg di am information. absolument donc vivement que mu continue merci beaucoup alors euh, pour ñu nag amal bi lee ndaje état bu Sénégal ni ko vie waxee jàpp na ci pour Sénégal dalal li nga xamante ne moom mooy ce congrès qui a hier euh, Babou d'ailleurs euh, le ministre des sports Yankhoba Diattara moom moo présidé. première journée bi mhm. nga xamante ne waxtaan nañ saafonte nañ avec aussi des personnalités yoo xamante ne dañu am taxawaay wala ay ndombol tànk fii ci Sénégal moom Yankhoba Diattara am na ay kàddu yu mu yëkkati waaw Yankhoba Diattara di ministre des sports moom daal mu ngi wax ne maanaam nguur gi du mës a bàyyi ginnaaw ñi nga xamante ne mooy journaliste sportif yi war a waxal waral mu jàppale ko bu baax a baax pour mën a Sénégal mën a organiser li nga xamante ne moo di maanaam septième congrès bu AIPS ba tax na mu ngi rafetlu aussi en même temps Adja li nga xamante mooy journaliste sportif yi ñu ngi koy liggéey pour li nga xamante ne mooy sport euh, Sénégal jëm ci kanam ñu déglu ay kàddoom ñëwaat état du Sénégal mu ngi ci wetu association nationale de la presse sportive pour jàppale leen ci seen liggéey mais également ci seen activité te loolu aussi day wane li nga xam ni euh, mën naa ni dynamisme mooy njaxlafu association de la presse sportive ñuy def nag liggéey bu am solo te defe naa ni c'était location nag ma revenir ci li nga xam ni mooy rôle bu am solo bi nga xam ni presse sportive mu ngi koy def donc ci accompagner sport bi ndax su sport excès fii ci niveau de développement loolu tamit dañu war a xam ni presse sportive dugal na ci loxoom jàpp nañ ci bu baax a baax ba mu mën a egsi fii mais également donc occasion la woon également ñu partager avec les acteurs li nga xam ne mooy vision président de la république pour ñu am benn sport bu moderne mais également bu performant te tey résultat yaa ngi ñëw macha allah Sénégal jël na Coupe d'Afrique dem nañ CHAN jël ko jël ko beneen bi bi si soccer defe naa ni am nañ ci sept victoires dont dont de d'affilée ñu ngi nii ci u yi tey ñu ngi def ay résultats am solo en Égypte yooyu yëpp day wane macha allah niveau de performance yi nga xam ni suñu équipe nationale yi am nañ ko tey ni mu développé mën naa ni tey sport bi ni développé te loolu ñun ñëpp ñoo ci am rôle te presse bi joué na ci rôle bu am solo. à la suite du ministre des sports patron du sport sénégalais ba Diattara ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Wade ndax ci comité d'organisation jeu bu am solo muy les jeux de la jeunesse 2026 moom aussi dellusiwaat na ci organisation bi taxawaay bi biñ ci am liggéey bi biñ ci def expérience biñ ci am moom aussi am na exposition bu am solo bu mu def ci kanamu sunuy confrères africains. effectivement Adja moom daal mu ngi félicité encore organisation bi nga xamante Sénégal organisé ko li nga xamante ne moo di septième congrès bu AIPS ba noppi waxtaanee na li nga xamante ne fa lañ toll jamono ji euh, pour amal li nga xamante ne moo di JOJ 2026 ñu xool bi. donc ñu naan leen gàcce ngalaama ci li ngeen xam ne euh, ay ANPS organisé na ko président Ablaye Thiam ak ay naataangoom dalal euh, euh, monde la presse sportive africaine waaye dalal boo xëccaan dalal leen ci anam bu mucc ayib mais surtout boole ci ñi nga xam ñoom ñooy partenaire am. waaye rawatina tam ñu jox ñu occasion nañu comme Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xam mooy xew fii ci réew mi 2026 fii lay amee ci Sénégal pour Afrique que ñu ñëw wax ak journaliste de la sportif africain yi. fan lañ toll ci liggéey bi fan lañ tollu ci préparation yi bi nga xam ne ñun nag ñu nag plus ñu presse ñoo ko bokk muy loo xam ne aussi rafetlu nañ ko parce que permettre nañu seen naataango yu nekk ci Afrique ak ñenn ñi nekk ci bitim réew xam ni tey jii Sénégal mu ngi ci phase su préparation bu dëgër bu ànd ak sérieux ànd ak rigueur te gëm ñu gëm ni incha allah dinañ ci yegg waaw village olympique moom dañuy sant yàlla bu baax bi nga xamee ni président de la république Macky Sall fan yële gis ngeen ni ci weer yi ñu génn inauguré na ko naam bu fekkoon ni 2022 la euh, euh, université bi doon na fi nekk waaye rawatina bi nga xam ni 2026 la ñu gis ni muy université bu mucc ayib boo xam ni tey jii dèjà xale étudiants yi dugg nañ fa Euh, ñu liggéey bi di gën di continuer pour gën ko ñoŋat waaye parce que pourquoi ñu war a def loolu ndax fa la ñu fas yéene dëkkal lépp li nga xam mooy euh, euh, juróomi junni athlète ak lu topp yi nga xam ni ñoom ak seen i encadreur ñoo war a nekk foofu xale étudiants yooyu dinañ leen jël boole leen ci li nga xamee ni moom mooy organisation bi waaye surtout nag ñu fexe ba nga xam ni bu ñuy organiser Jeux yi mois d' octobre novembre deux vingt six du gàllankoor lenn ci seen njàng ci calendrier académique bi au contraire day tax ñoom ñu mën fa nekk ñoom ñi nga xam ñoo dëkk foofu ñu dalal gan yi wan leen yoon yi wan leen bunt yi mën a saafoonte ak ñoom ba xaritoo juddu fi ba àddina bi gën a nekk ci jàmm. Voilà, c'était la réaction de Ibrahima Wade moom mooy coordonnateur comité d'organisation des jeux de la jeunesse 2026 mu dellu siwaat exposé ci kanam sunuy confrères organisation bi expérience biñ ci am naka la ñu ko nar a déroulé bokk na si aussi leneen lu ANPS wan ay naataangoom expertise locale bu Sénégal boo xamante ne ñu ngi koy magnifier partout et le symbole jamono ji mooy le sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal Aliou Cissé auréolé d'une Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière c'était au Cameroun moom tamit woon Adja li nga xamante ne moo di suñu congrès AEPS bi moom daal euh, mu ngi rafetlu aussi tamit di féliciter ki nga xamante ne moo di le président Abdoulaye Thiam ba noppi waxaale na li nga xamante ne moo di ay ambition ndaxte gannaaw juróom-ñetti at yoo xamante ne mu ngi si bopp équipe nationale moom daal mu ngi wax ne tey la wàllu gën a aay di profiter wàllu aussi di féliciter ki nga xamante ne moo di Pape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

passé nañu ay moment yoo xam ne yu yu am solo la donc je suis vraiment content que tey euh, mu écrire moom tam turam ci histoire du football sénégalais en gagnant boobu mais mën naa wax ni que dara été wu ma parce que tamit préparation CHAN bi depuis un an un an et demi ñu ngi koy préparé su may wax ci CHAN bi mën naa dugg ci domaine yu bëri domaine yu bëri mooy que tey infrastructure yi nga xam ne muy tubaab jalaw muy muy muy nu mu tudd euh, euh, géréw mën naa wax ni ay ay yoo xam ne day permettre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 voilà c'était la réaction du sélectionneur national Aliou Cissé mu ñëw taaral wane li nga xamante ne moom expertise locale sénégalaise am na poñ yoo xamante ne yëkkati na ko dañuy dugg sax ci li nga xamante ne moom mooy suñu deuxième sujet muy football ma bàyyi Grégoire mu ñëw ak peut-être invité yi wala commentaire booy def par rapport à l'élection d'Abdoulaye Thiam à la tête de AIPS Afrique. bon d'abord di ko féliciter parce que Abdoulaye Thiam Dia ku ko xam-xam ne c'est un homme de sérail moom kenn la koo xamante ne. Euh, tey bu presse sportive sénégalaise amee fit di def yenn yi yaakaar naa ne yàlla ak moom la alors c'est une personnalité boo xamante ne tey pour man sa nomination euh, wala boog son élection tey c'est une élection qui arrive à son heure parce que waxuma la le sport sénégalais mais le sport africain moom moo soxla tey un dirigeant bu ni mel. Mm-hmm. sànq dafa am ay kàddu yu jib ci baab moom mooy bilan waaye également défi défi nag bi mu am tey moom mooy relever tey euh, une presse africaine ne tey quelque tey ñëpp ñëpp ñoo bëgg a xëy rek nekk journaliste sportif parce que opportunité yi ci nekk ñoom ñoo tax donc euh, tey premièrement li muy def moom mooy relever tey euh, cette presse sportive africaine bi nga xamante ne ñoom quelque part bëgg nañ mel ni nga xam ne moom la ñu gis donc xam na ne tey cette qualité là mu ngi fi mais mu ngi fi li ci des moom mooy fexe ba rassembler tout le monde tey autour d'une table bu ko defee tey bu ñu amee tey cette communion là dina mën a fexe ba ñun ñëpp fi ñu jublu tam ñu bëgg fa dem donc leneen liñ ciy teg xëy na moom moo nekk euh, ambition bi nga xamante ne tam fësal na ko bu baax a baax muy wane également tey Sénégal euh, c'est une nation boo xamante ni tey sur tous les plans on continue d'être plébiscité parce que tey am nañ talent mais également on a tey li nga xamante moom mooy dem négation bu ko defee euh, lépp loo xamante ne tey ñu ngi fiy gis moom mooy ñu figure au premier plan non seulement nag ci terme jeu mais également ci ci management ak leadership parce que Sénégal tey tool na foo xamante ne tey sur tous les plans dañu war a gis non seulement CAF mais également ci instance décision yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey ci biir continent bi ñun ñëpp dañu fa war a fës donc chapeau Ablaye Thiam également euh, chapeau Sénégal mi nga xamante ne tey ñu ngi figuré waat sur le premier plan. alors peut-être may ak invité xëy na Cheikh Omar lay doon par rapport ak Aliou Cissé mu ngi koy wax euh, def na tey une coupe d'Afrique des nations dem nekk champion d'Afrique dem na à la coupe du monde gis na ni niveau bi tey am na fu mu yegg nit ñi ñu ci bëri ñu ngi doon jàpp sax ne xëy na euh, daf fi war a jóge. mais moom dégg li mu wax il il part toujours de cette continuité la moom mooy euh, ambition ba léegi changé wul donc benn objectif yi mu am moom mooy dem jëli une autre coupe d'Afrique des nations avec ce groupe là tey euh, est-ce que yow da dangay ànd ci li mu wax moom mooy continuité bi mais ak ban façon continuité lay doon parce que aussi un a un groupe boo xamante ne tey xëy na euh, différence dage mu ngi commencer compter et puis va dans un pays boo xamante ne tey c'est une Côte très faim par rapport ak ces trophées là oui bon je pense que euh, <coughs> idéologiquement euh, la la réponse sera sera nette parce que xam nga euh, on peut on peut pas tey évaluer un entraîneur et laisser à côté son palmarès mënu nekk. donc tey Aliou Cissé soo seetloo laa a réglé deux problèmes c'est-à-dire deux problèmes majeurs bu ci njëkk mooy le problème de la stabilité de groupe parce que en fait ñun dafa am jamono yoo xam ni on avait un un problème d'équilibre groupal au niveau de cette tanière là. nga xam ni euh, dañ doon am ay yenn difficultés yi yenn jours yoo ne dañu nekk ci ay këral euh, ñu am un problème déstabilisé c'est c'est que la fédération a joué un rôle important sur ce plan-là en euh, suñu demee compétition mais équilibre de groupe bi c'était à Aliou de de de l'amener et Aliou tout caractère donc c'est pas pour rien qu'il a été capitaine bu mu ñëwee dafa régler ce problème là ba nga xam ne loolu dafa bokk ci ci loo xam ne day impacter sur la psychologie du groupe mu ñëwee il a réglé cette question là boobu mu jógee foofu sur le plan sportif on a décrié ces systèmes de jeu la manière dont l'équipe jouait mais quand on revient sur le palmarès ci comptabilité yi da ngay gis ni c'est un coach qui a, qui a gagné une Coupe d'Afrique des Nations derrière laquelle on a couru depuis plusieurs décennies moom mu ñëw gagné ko après il qualifie l'équipe à la Coupe du Monde pour prendre ne serait-ce que les derniers donc euh, de son magistère moom laa nekk di considérer nii mais loolu rek pour man euh, pour ñu mën ko wóoluwaat parce que Euh, soo nekkee entraîneur plus tu dans la dure plus tu as donc euh, cette euh, en tout cas cette possibilité de maîtriser le groupe de ça comprendre aussi les rois de l'équipe nationale parce que équipe nationale dafa complexe c'est très compliqué donc soo ci nekkee ci ngay mën a xëy na nga xayma joueurs yi nekk au niveau international ku ci nekk ci ban club lay jouer ban profil de joueur laa soxla ci ban match et puis aussi une, un certain avantage lié au fait que miin nga compétition yi. Mhm. parce que tey Aliou il n'est plus à présenter ku dem bay xëccoo meilleur entraîneur africain c'est parce que ku dem na bay miin compétition yi donc soo indi rupture actuellement nii nii ak perspective yu ñu jot a gis ça peut moo tax pour man euh, il de la matière il a encore quelque parce que kan bi ñu jël nii pour man on a la possibilité donc ñu redoubler ko mais benn élément rek laa xam ni il faut mu renforcer ko mooy comment faire euh, pour marqué ce trait d'union entre l'antichambre de l'équipe nationale ak ñi nga xamante ñu ngi leen di convoqué alors que amuñu apport parce que y a des trentenaires yoo xam ne comme ni nga ko ñu ngi ci équipe nationale bi ils sont vers la de sortie mais il faut savoir maintenant créer ce link entre l'antichambre au regard du CHAN on a vu des joueurs de très bonne qualité la CAN U20 en cours on a aussi observé qu'il y des joueurs de très très et que dans toutes les compétitions qu'on a gis nañu les équipes jouent de la même manière. Mm-hmm. donc comme quoi les intrants qu'on c'est des intrants de qualité dans tous les niveaux soo jëlee u bi CHAN bi je pense c'est des jours aussi yoo xamante ne on peut quelque part leur donner la chance c'est vrai qu'on a tout le temps le championnat local mais lu CHAN bi lu ñu gis ci CHAN bi quand même c'est très satisfaisant pour le football continental. yu war a mën a intégrer li nga xamante moo di équipe A bi. xam nga waaw y a des postes qui sont en équipe nationale. par exemple y a des postes parce que xam nga tey soo ñëwee au niveau de du milieu terrain on a des joueurs euh, qui qui de l'âge Lamine Camara man je fais partie des gens yoo xamante ne dama ni un joueur qu'il faut garder cest à kooku warul échapper parce que on a deux Lamine c' est Lamine de de Berkane Lamine de Génération qui doit qui a renforcé son niveau de formation kooku lu muy joué ci numéro 6 man je me dis la classe soo ko xoolee eh, actuellement il est en train d'abattre le même travail mais kooku c'est un boo xamante ne mën nga ko bàyyi xel xëy na trop sur les individualités mais Aliou il connaît que ci CHAN bi am y a des très bonne qualité yu fiy jot a jaar soo jógee CHAN bi aussi nga ñëw ci CAN U20 bi ñu nekk du jeu nii y a très bonne qualité commencé jàng le Sané de de c'est vrai qu'il est un peu dans le dernier geste. Ouais. mais quand même c'est un joueur qu'il faut surveiller. waaw voilà le le le gauche qui est actuellement. à la à la U20. Mhm. il est très excellent il va aux avant-postes donc c'est un arrière gauche parce que mhm. nous on est un chantier aussi sur le côté gauche. donc mhm. je pense que élément yëpp suñ ko réunir suñ ko diagnostiqué avec les techniciens la A. alors euh, dama leen di boole ñaari question yi parce que bi ñu def ak interview bi euh, coach dafa souligner lu am solo nee na benn moment il était fier il y a quelques années que ay joueurs nekk ay professionnels dem Saint-Étienne il a cité quelques clubs français. mais nee na bi ñu jógee coupe du monde bi on a vu un niveau élevé boo xamante ne cette fois-ci il demande au club traditionnel mm-hmm. au centre de formation yu mm-hmm. gën a élevé li nga xamante ne moom mooy formation bi parce que désormais le Sénégal a besoin de joueurs qui peuvent disputer une coupe du monde loolu lan moo ciy paaru ñi nga xamante ne ñoom ñooy formé ak peut-être ce qu'on peut attendre cette fois-ci comme il a parlé d'ouverture de l'équipe national xam nga ñun nag formation c'est que en fait xam nga le football évolue souvent man dama naan souvent il faut il faut être dans dans une formation permanente parce que li waral loolu mooy suñu joueur dañuy raté les béyaba soo xoolee joueur bi tant que demul Europe du régler un certain nombre de questions parce que béyaba yi mu war a am fii au Sénégal da koy raté joueur bi day dem ba nekk ci niveau de compétition pour régler la question de comment marquer un but. et mhm. c'est très problématique donc la qu'il faudra mettre les éléments pour xale bi nga jàngal ko. tey nan nga war a mën a contrôler bal bu baax nan nga war a mën a dugale pour pour non seulement cibler le poste bi nga xamante ne mooy le poste idéal di Gamé. mais aussi nga nga créer benn symbiose boo xam ne am entre lu mu capacité yu mu am ak poste bi nga ko demandé. te loolu c'est au niveau formation malheureusement formation boobu ñu koy def c'est pas des entraîneurs qualifiés souvent soo demee gis wala animateur bi la ñuy jox donc celui qui doit faire le travail il est au niveau de l'équipe première mm. qui a déjà atteint un niveau boo xam mënatoo mënatul assimiler dara donc moo moo waral su ñu demee compétition on a des problèmes réels pour retrouver des joueurs de qualité sur le plan individuel maintenant loolu pour ñu régler il faut revenir sur sur la base de la formation cest à ñu dellu ci formation de base ba pare entraîneur yi nga xamante ne ñoo am benn niveau bi ñu wàccaat suñu demee compétition internationale da gis ni c'est tous les pays africains yow le temps que tu prends pour prendre de l'information parce que la prise d'information elle est fondamentale gis nga bit bu ñu jël contre Angleterre loolu la ñuy prise d'information dans un dans une zone de petit périmètre nga xam ne suñuy passe ci la waaj di gëstu jël information su contrôler il élimine deux voire trois heures. Hmm. donc loolu. voilà donc loolu c'est c'est da ngay gis jour day jël bal da ngay xam radicalement qu'est-ce qu'il va faire en <laughs> loolu yëpp soo ko boolee dafa laaj jàngat boo xam ni xëy na suñ ko amélioré je pense am na jour yoo xam ni quand même war nañ mën a atteindre le niveau de la coupe du par rapport à cette euh, sortie de, du sélectionneur bon en fait euh, man jàngat bi ma ci am mooy il faut que les gens comprennent que ni euh, dernier gestion comme par exemple ah parce que nee nañ équipe A moom pare. c'est ça au niveau. Mm-hmm. au niveau dafa am exigence ay caaxaan. wala boo tasee ñëw erreur bu ndaw ngay def mu balaa ngay comprendre marché bi tas dafay nekk naan lan laa defoon lu ma def mais en fait par rapport à cette formation là ça ñu ñu actuellement parce que comme tu vois les yi nekk ci suuf ñuy def résultat yu baax. fort parce que ma jox la benn exemple moom comme par exemple Cheikh Oumar mën na nekk benn moniteur wala un formateur yëkkati ko dem xool en Espagne ñi dàq comme par exemple kii centre de formation Barça ñëw yóbbu ko fa stage pour six mois la mu fay sàcc. Mhm. jëlee ko mais bu ñibbisee du ko denc ko moom kese. Mhm. war na ko man partager ak formateurs yi nga xam ne ñi ngi ci district am. Mhm. parce que loolu moo lay permettre nga évoluer gis nga nit. Euh, bul am kersa wala bul rus wala rëy di laajte. gis nga fii ku fi bëgg a progresser dans cette vie muy football muy feneen ak feneen il faut nga am référentiel. ce référentiel là da ngay dem nga jëli ci ko bitim réew. looloo lay permettre. au moins là tu peux hmm. des joueurs yoo xam ne ils vont nous valoir des, comme que comme li ñuy wax <laughs> ñu ngi góorgóorlu mais coow li nekk ci kaw mën nga fa dem mais des se maintenir moo xaw a jafe d'accord Greg peut-être une question bon peut xam ma dafa ne euh, ñiy formé hmm. war nañ leen a former mais également euh, peut-être fan lañu war a tibbee ñooñu noonu parce que li ñu faral di gis Sénégal moom mooy xëy na benn Cheikh Omar boo xam ne dafa ne ci koñ bi gis booy ñu bëgg bal mu dem wuti ay poloom ak lépp mhm. dem dajale leen ci terrain bi euh, xale yi également ban âge lañ war a dugg ci centre de formation yi mhm. mais aussi formation bi étape yi mu war a suivre mhm. fan ak fan la parce que li ñu tendance bi ñu gis moom mooy déchets yi Cheikh Omar di wax li tax muy feeñ xëy na moom mooy xale bi âge bi ñu koy formé xëy na day fekk li ñu koy jàngal maanaam xel mi weesu na fa donc boo ko bëggee delloo basique moom xëy na loolu noonu dootul nekk ci moom mais tey euh, pour yow kan la ñu war a former ak kan moo war a mën a forme tey xale yooyu noonu parce que aussi pour man sport fi mu toll nii au niveau sénégalais tey euh, wane na tey àgg na benn palier boo xamante ne on doit plus tey toog di di jël booy di leen dajale euh, ci ci ci beneen fànn loolu l'autre chose moom mooy académie yi pourquoi pas tey mënuñu am deux trois quatre benn génération foot boo xamante ñu ngi fi parce c'est une référence au niveau africain aussi donc tey formation boobu noonu tey kan moo ko war a def ak si ci yenn ci yenn ab base la ko war a defee. bon xam nga soo xoolee comme. mais boo waale ci le modèle parce qu'il a parlé de génération foot. Ouais. mais c'est un modèle boo xamante ne ci benn tànk lay doxee. gis nañ les jeunes lorsqu'ils sont revenus du CHAN. Mm-hmm. trois désormais vont partir. Mm-hmm. vont quitter le championnat c'est-à-dire ni ñu li ñu doon xaar génération foot. Mm-hmm. cette fois si c'est trois éléments essentiels qui quittent le club. ça préjudice la. pour le football local. Mm-hmm. pour le football local mais pas pour Génération Foot parce que Génération Foot day former. Mm-hmm. pour jaay aussi. a fait c'est ça c'est ça sa politique. Mm-hmm. pas pour Génération Foot parce que bu ñu demee Metz transfert boobu amul xaalis. waaw non en fait. Euh, suñu demee il faut que ñu quitter Metz pour demaat feneen. en fait c'est un exemple qu'on qu'on donne comme ça. effectivement maintenant bu ñu jëlee comme par exemple yi xam nga yàlla CONEFS. ñoom ñoo organiser wu dajale école football Sénégal yi gis nga lépp loo gis waxtaanee la il faut que les gens ñu am volonté surtout période bi fii footballu Sénégal toll. Mhm. xaalis am na fi mais toog waxtaan xool exactement lan mooy priorité yi parce que comme ni ñuy wax Cheikh Omar mën na nekk benn passionné mais quelqu'un qui est te amul moyen mm. pour former wu mais war nga ko mën a jàppale pour former ko parce que Adja il faut ngeen dugg ci banlieue bi ngeen xool. y a combien d'écoles de football ay gars yu taxale ñëw dem jëli ji ay polo comme ni ñu koy waxee dajale ay booy mais ñooñu lan la ñuy def mais ils occupent ces jeunes là ils occupent ces enfants là parce que amaana bu loolu amuloon booy lan la ñuy def ji dem di perturber ji ay koñ ay xeex fii de gauche à droite ñun modèle bi ñu yor man je pense que ne euh, nguur gi mi ngi ciy def jéego fédération mi ngi ciy def jéego mais doyul dañu war a yokk organiser xam na ne fi ñu toll nii affaire yaa ngi multiplier wu des centres de formation en fi plus fini maintenant nag bitim réew comme GF li mu def Ahmeds euh, kanati jàmbaar aussi jàmbaar yooyu mën na am mën na continuer et dans les régions aussi affaire yi du Dakar kese mm. du Dakar kese maintenant par rapport à ces jours la euh, comme tu dis à bas âge la c'est l'idéal c'est l'idéal loolu dañ koy toog xalaatee ko les ressources humaines a ngi fi. Mm-hmm. ñu ko mën a xalaat ñu ci mën a brain mm-hmm. toog tënk ko ci këyit. ñu proposé ko nguur gi. nguur gi mu ci mën a jàpp mu jàpp ci. Babou peut-être. waaw justement euh, mooy parce que. Mm. comme si waroon ngay affaire formation bi parce que euh, war nañoo jaajëfal bu baax baax ñi nga xamante mooy centre formation yi bu ci mel ni génération foot génération kii mu ngi koy wax Grégoire Dakar Sacré-Cœur. ak eh, ñi nga xamante ne eh, mooy sànn mooy sànn ñi nga xamante ne ñooy formé booy parce que toog nañu ay ay at Sénégal musul maanaam accéder fu mu accéder bi mais bu ñëwee ba accès ba ba participer li nga xamante moo di ay Coupe d'Afrique di sori war nañ parce que majeure partie yi nga xamante mooy joueurs yi participer Coupe d'Afrique bi joueurs yi si bëri fa lañ jóge li nga xamante moo di centre formation yi mooy centre formation mu di comme yi ma yi ma yi ma yi ma tudd léegi-léegi kon maanaam am nañ ci benn part de responsabilité bu mag a mag boo xamante ne vraiment ñu ngi réew si li nga xamante ne moo di maanaam euh, football xale yi parce que vraiment boo xoolee équipe nationale U20 yi muy U20 muy CHAN bi majeure partie joueurs yi nga xamante ñoom lañ jël ñu si bëri ñu ngi jóge fi nga xamante moo di centre formation yi seen formation dafa c'est c'est une formation bien encadrée en fait ñoom 12 ans la ñuy recruter Abdou Salam c'est c'est le chargé du recrutement à Génération Foot moom 12 mm. ans la ñuy jël xale bi di ko tàggat ba muy màgg ak moom parce que ci phase linéaire yi nga wax dafa am minimum benjamin cadet junior senior donc ku ci phase bu ci nekk dafa am un modèle de formation adapté boo xam ne moom ngay moom ngay délivrer les jeunes footballeurs actuellement ils ont ils ont remporté un tournoi mhm. Mohamed VI au Maroc récemment mhm. où il y avait le Real de Madrid am club yu jógee Pays-Bas euh, voilà pas mal de clubs ah Fils de Rabat mhm. ñoom ils ont gagné c'est les U19 qui ce tournoi là donc loolu dafa nekk loo xam ni day permettre à ces académies aussi d'avoir un vivier de footballeurs très très très excellent yoo xam ni moom ñuy représenter coach wax na yeneen sax par rapport ak même choix yi par rapport ak club yi ñuy yóbbu joueurs yi parce que des fois on entend benn pépite mu jékki-jékki même ci yenn catégorie disparaître on le voit plus il devient professionnel après on le voit dans des championnats yoo xam ne mm. donc euh, beneen débat la boo xamante ne il faut ñu teg ko ak euh, ñi nga xamante ne seen xam-xam da ci màcc parce qu'il y va de l'avenir du football sénégalais mais dañ ko ci boole waale rek Grégoire euh, Sadio Mané on l'attendait alors euh, tout à l'heure il a foulé les pelouses de l'Alliance Arena bien sûr Adja c'était nag pour vingt cinq minutes ci match bi nga xamante ne tey opposé woon na Bayern ak ñooñu di waa Union Berlin Sadio nekkoon koo xamante ni gëj nañu ko gis sur les pelouses de Bundesliga bien avant la coupe du monde amoon na te sax cette coupe du monde là à cause de cette blessure bi nga xamante nag moom moo ko xañoon lu ni mel alors Sadio Mané nag jëy jël la place d'un certain Kingsley Coman daal di dugg ci match bi également ah, moom joueur bi nga xamante ne sax daanaka moom moo dugal le but du Bayern un euh, Sadio Mané a donc foulé la pelouse mais également euh, dans de très bonnes conditions Sadio Mané boo xamante ne tey il est rassurant donc euh, comme ni ko entraîneur am di waxee rek il a retrouvé la Bundesliga mais également c'est de bonne augure pour li nga xamante ne tey moom mooy la suite européenne pour pour le Bayern ki nga xam ne war na dalal également le Paris Saint-Germain. Ah ñaari élément mooy est-ce que bi dafay des bi donc je pense que ñaari éléments yooyu la ñuy xool c'est vrai que mënuñu ko apprécier ci benn match mais xëy na su su amee ñaar ñett ba ñeent sorti ci la ñuy mën a reconnaître est-ce que Sadio il revient en en pleine forme ou pas mais gëm naa ni temps bu mu jot a toog yëpp. avec le plateau médical autour de lui war na mën a retrouver ces deux éléments fondamentaux donc dans le dans dans le football moderne yooyu la laaj soo jógee ci blessure moom dañ la laaj est-ce que comme ni nga ko doon defee wala est-ce que ce ce niveau d'exécution sur le plan de la vitesse nga ko retrouver waat ñaar su ko retrouver technique moom mm-hmm. mm-hmm. parce que ñu bari ñu ngi wax euh, suñu match contre Angleterre bu fi nekkoon peut affaire du match bi du Euh, comme que léegi retrouvé nañ ko ñëwaat na li nga xamante moo di maanaam ci compétition bi te am nañ ay match yoo xam ne moo ñu xaar mois de mars mooy euh, éliminatoire euh, Coupe d'Afrique dañ ko war nañ ko war a mën a jouer ñu ci xaar ki nga xamante moo di Sadio Mané di ko ñaanal rek li nga xamante moom la tàmbalee tey parce que tey dugg na malgré cela dugg na def na passe balle mais attaquant bi moo ko moo ko moo ko naanee sàngara di ko ñaan rek ñu continuer ko <laughs> vieux Sadio qu'on qu'on retrouve c'est le métronome de cette équipe euh, équipe bi war a attaquer inchallah le 24 ak le 28 la troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la CAN man defe naa dama koy béggee comme ñëpp ah comme mm-hmm. tous les sénégalais ñëpp a ngi ah doon xaar Sadio parce que je me bi mu blessé ñu ci bari dañ jàpp seen bopp ne non mm-hmm. suñu coupe du monde yàqu na mm-hmm. ma ne leen nag déedéet il faut ngeen xam une chose euh, un collectif c'est une somme d'individualité ah Sadio bu fi newul tamit man leer na ma ne gars dinañu dinañ saa moom c'est sûr et certain même si comme ni mu ko waxee c'est le métronome mais aussi foog nit yi xam njëriñu Sadio Mané surtout ci équipe bi. parce que Aliou Sadio da koy yombalal liggéeyam. parce que xam nga si tu as une star bu mel ni saajo Mané c'est pas du def naka su dul noonu du dugg ci du yoo xam na ne mooy loolu. boobu boo ko amee mu nekk si sa star dafay dalal sa groupe parce que képp ku nar a perturbé wala dugg ci yenn yi. boo xoolee ne ni kii mooy star bi duggul ci hmm. damay mujjee yem damay mujjee dal looloo tax. présence am dafay pacifier le groupe là. Mm-hmm. te gars yi chaque fois bu ñu xoolee ci moom dañuy am kersa quoi. Mm-hmm. parce que ni mu mel jëmmam bon pratiquement doo am loo koy reprocher quoi. donc euh, macha allah sant yàlla et puis na góorgóorlu rek li ci li ci li ci yoon bi mi ngi ñëw quoi. alors Cheikh Oumar on n'est pas vous n'êtes pas médecin mais est dina dina retrouver phase retour bu huitième de finale euh, Ligue des Champions parce que ñëpp loolu la ñuy xalaat cette fois-ci. waaw waaw même son coach en a parlé je pense que il sera un élément déterminant dans dans dans dans son bloc d'équipe mais en réalité ñaari éléments yooyu rek ah parce que suñu paree ci si bi loolu lañu wax quoi il faut que athlète bi moom mën a retrouver ces deux éléments là donc loolu mënuñu ko opérationnaliser ci benn match tey par exemple mais su jeewaatee euh, match ci wala ci entraînement yi coach bi mën xool est-ce que en réalité. il peut venir mais gëm naa ni ko am portion de tey normalement dina mën a bokk ci dispositif Ligue des Champions parce que dañ ko soxla en réalité Sadio c'est un joueur boo xam ni ku ñeme liggéey la ku am ku am jom la ci terrain. Mhm. donc pour nga utiliser ko doo ci am difficulté trop trop. gëm naa ni xëy na on a satisfaction sur le plan des résultats médicaux moo tax ñu sañ ko. dugal ci terrain yi parce que tubaab il badine pas avec ça. mais nit ñi nee nañ Kingsley Coman. Coman <laughs> oui. Kingsley Coman mm. yi il marche. Oui, sur l'eau oui mais <laughs> mais sauf que Sadio est beaucoup plus euh, décisif que que mm. Coman. c'est vrai qu'il apporte des ballons il fait des courses en profondeur c'est un joueur de poche. qui est capable d'animer sur les côtés mais Sadio moo ko ëpp justesse en fait donc ça c'est c'est c'est personnel gëm naa su nekkee en pleine forme il le met sur le banc immédiatement. <laughs> parce que style de jeu bi bokkul déjà gars boo xamante ni capable d'évoluer tey que ce soit euh, ci biir euh, front attaque bi mais également ci ci côté yi donc Sadio Mané c'est il est beaucoup plus polyvalent que tey un Kingsley Coman boo xamante ne pour man ci dispositif yi nga xamante ne tey moom Nagelsmann war na ko utiliser. donc je me dis que tey un Sadio Mané en forme donc day bàyyi Kingsley Coman donc on a vu tey même si début saison bi aussi c' est une chose boo xamante ne tey fës na bu baax a baax ci collectif bu Barn alors 100 jours boo xamante ne tey moom il est capable tey de se sacrifier tey au bénéfice du collectif donc euh, mm-hmm. tout ce qui est le contraire tey de Kingsley Coman alors 100 jours nag qui revient de blessure petit petit la ñuy def mais dans les idées de l' entraîneur ça que tey euh, le plus à tey ak euh, ñoom Choupo-Moting c' est Sadio contrairement tey ak ki nga xamante moom mooy Kingsley Coman parce que le jeu est beaucoup plus fluide tey quand on a un Musiala à côté de Sadio Mané euh, qu'un Thomas Müller et un Kingsley Coman certes nag tey le Bayern a colmaté des brèches ba ba fi mu toll nii mais tey avec le retour de Sadio Mané ça offre beaucoup plus de solutions à l'entraîneur et je me dis que tey euh, muy Kingsley Coman di Serge Gnabry wala keneen ak keneen donc Nagelsmann attend tout simplement le bon fi nga xam ne tey dina mën a jouer tey 90 minutes pour le remettre le terrain. Euh, pour être beaucoup plus décisif beaucoup plus chirurgical c'est tout le mal qu'on souhaite à notre ñancoo national on rappelle que sànq dugg na soixante-cinquième minute et que euh, son club le Bayern a fait l'essentiel en s'imposant trois buts à zéro euh, ces jeunes frères qui sont en ce moment en Égypte sont en train de d'accomplir euh, de faire un tournoi extraordinaire il s'agit euh, des protégés de Malik Daf Grégoire trois matchs trois victoires il fallait le faire et les Lions l'ont fait. ci premier tour bi lee grâce nag à Daf mais également à Match Malick Diop mi nga xamante ne ñu ngi koy nuyu également de passage moom suñu consultant la woon également donc ces Lions là et leur parcours c'est résumé de Birama Camara. lu ñu waroon a def la te def nañ ko ñoom sunu gaynde yu ndaw yi ci coupe d'Afrique ba nga xamante ni ñu ngi koy amal fële ci réewum Égypte te ñu jagleel ko gaynde yu ndaw it yi nga xamante ni seeni at matagul ñaar fukk naka lañu ñu sóobu ci compétition bi ñoo ñu sàmba jàllo yi jàkkaarloog ñii di le Flying Eagles di doomu réewum Nigéria nga xamante ni daanaka jël nañ ci lu tollook juróom-ñaareel yoon lii di coupe bi waaye gaynde yi jaamaarloog ñoom ba puqati ndam li seeni loxo benn bal ci dara mu di bi nga xamante ni lu tollook ñeent fukki simili la ko Souleymane Faye dugal loolu sax moo nekk premier bu ci compétition bi gën a dolli sunu gaynde yi yaakaar teg leen ci kaw groupe bi nga xamante ni moo di groupe A ci noone ñuy doxal ba tey seen ñaareelu jano ñu séq ko ñii di leen Mamba Junior di doomu réew Mozambique match bi ñu joue ko premier mi bi ñoom gaynde yu ndaw yi ñu daal koy contrôler début ba fin laataa ñuy dem mi nag 42e minute kii di pap Amadou Diallo ci la lakk caaxi ji jeexal deuxième mi bi ci quatre-vingt-cinquième moom ba tey amadu Diallo mu lakkaat caaxi mu di ab duble waaye laata muy amal duble bi ki di dem ba Diop moom ca cinquante-troisième minute yi ca la dugal moom tamit match ba mujjee ci ñetti bal ci dara loolu may sunu gaynde yi ñu am ticket bu leen di yóbbu ci quart de finale laata ñuy janoog seen dernier match de poule ak waa Égypte mi nga xamante ni ñoo daloo bii les compétitions ñetteelu match bi nag ñu door ko ci temp temp ba premier bi jeex bal damul bal dikkul waaye ba ñu dellusee ci terrain bi ci la kii di Malick Daaf amal ay coppiku dugal attaquant bii di Ibou Sané génne Souleymane fay Mohamed Gueye jox place am kii di amidu Diop ci noonee nag la xar kanamu match bi changé carrément kii di Demba Diop moom mayul pharaon yu ndaw yi lenn ndax cinquante-neuvième minute la lakk caaxi soixante-treizième mu làbbaliwaat soixante-seizième mu dafati lu ni men mu di triplé bi nga xamante ni moom moo ko réalisé ci njàppandalu ki nga xamante ni moom it deuxième mi-temps bi lañ ko dugal mu di Ibou Sané di attaquant bu génération foot ñëw dugal ñeenteelu bi ci Sénégal jeexale phase de poule yi ñetti match gagné ñetti match yëpp gën a amati yaakaar mu mel ni kon sunu gaynde yu ndaw yi am nañ benn tànk ci coupe du monde bay war a am ca diwaanu Indonésie yaakaar mu ngi fi ndax football guñu match quart de finale te fi ñu toll ni meilleur buteur bi ñun ñoo ko jëlagum mu di gone gi ñu formé ca jàmbaar bu sali di Pape Demba Diop moom mi nga xamante ni dugalagum na ñetti but te yeggaguñu ca quart de finale ya ñu koy jaajëfal moom Birame Camara euh, yaakaar am na ndax ku am benn euh, buteur boo xamante ni ku ci mel ni Pape Demba Diop l'espoir est désormais permis peut-être pour une qualification en demi-finale et à la Coupe du Monde de 2023 euh, ñuy jaajëfal ñi nga xamante ne jamono ji ay agent lañ ñi ngi ci prison Rebeuss on on on le on, on le fait pas mais c'est un message qui nous va droit au cœur qui sont en train de nous suivre depuis la prison prison de Rebeuss ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafetlu taamu gi ak euh, ni ngeen di suivre votre chaîne préférée di jaajëfal di defal aussi euh, ñi fa nekk foofu ca kaso Rebeuss Grégoire ma bàyyi la nga ak euh, Cheikh Oumar. waaw Cheikh Omar on disait tantôt ci li nga xam moom mooy suñu mondial bi ñu nekkoon coach Malick Diop mu ngi ci doon insister l' efficacité moom mooy li nga xam moom mooy def la différence une fois qu'on arrive en en en compétition alors. Le Sénégal aujourd'hui c'est huit buts marqués ci premier tour bi il y a donc l'euphorie autour de ce groupe-là euh, mais tey Euh, les de finale c'est un tournoi bi nga xam ne moom mooy démarrer en match couperet qui nous attend euh, xamaguñu xëy na ban adversaire la ñu war a am mais euh, tey. on donc c'est c'est une possibilité d'accord mais oui. on attend encore de voir demain ak meilleur troisième yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoom ñooy génn alors tey. Euh, ak ce quart de finale la ñu ñuy wax bu ñu gagné dañuy qualifier en coupe du monde mais comment tey faire savoir o garçons que tey le le premier tour c'est un tournoi boo xam ne romb nañu mais également euh, naka la ñu war a aborder ce ce ce la là. xam nga heureusement on a on a un coach boo xamante ne moom il est il est exigeant. trop waaw Malick Daaf moom <laughs> loolu mooy ADN quoi. Malick li coach yi di ten di kii di waxtaane moom il te l'oblige en fait parce que c'est la catégorie qui demande cette exigence là préparation yi. joueurs yi muy jël yëpp seetlu joueurs yi Malick Daaf jël c'est des joueurs costauds sur le plan mental ñu muy jël yëpp parce que moom soo soo amee une faiblesse mentale déjà tu fais pas partie de ces de ces plans et puis c'est des U17 yoo xamante ne moom moo leen yoroon ñu ci bëri ci ñoom mm-hmm. donc bu mu ñëwee ci lañ ci lañ ci lañ bi jox euh, jox ko u bi pour pour euh, pour mu nekk ci benn suite logique moo tax il maîtrise déjà son groupe donc avec quelques rares joueurs qui qui qui viennent d'intégrer cette tanière mais pour dire qu'on a un groupe qui peut aller en finale hein. groupe bi ma gis nii je pense que c'est des matchs couperets où le danger sera là parce qu'il faut les gagner pour passer mais groupe bi soo ko jëlee individuellement jour par jour donc euh, avec le collectif qu'on c'est vrai qu'il y a à, revoir aussi. Parce que dans le dernier tiers, on a toujours des difficultés. On était face à l'Égypte, qui est un adversaire censé être quand même mm. sur tous les plans. Mais dans le dernier tiers, on a des difficultés. Parce que Pape Demba, ce n'est pas un attaquant de, de non, base. un militaire. Ah, ah, ah, voilà, c'est-à-dire c'est schéma tactique. Parce que Pape Demba veut balle. À Djambar, il a été un peu de temps, il a été un peu de temps, il court de après son arrivée on l'a vu son coach a essayé aussi de retenir parce que il est partout en fait c'est un joueur de charbon bu Malick Daaf gisee ni Souleymane Faye il est de petite taille amul amul gabarit alors que Ibou Sané il vient d'une blessure parce que Ibou de génération ligament croisé amul mhm. donc c'est une blessure catastrophique boo xam daf ko xaw a empêché saison bi daf ko xaw a tuuti mais c'est un buteur c'est un kooku c'est un tueur il te comme waa ji day daw fu ne Pape Demba moo tax mu koy placer foofu noonu quoi c'est-à-dire derrière l'attaquant juste pour mu mën a def le relais entre les terrain et l'attaque donc loolu mooy schéma bi nga xamante ne Pape Demba ci configuration boobu lay jouer mais je pense que dans la globalité des deux premiers matchs am na quand des choses à rectifier parce que même le coach l'a dit. Mm-hmm. c'est-à-dire on parvient à faire la dernière passe parce qu'on on a du on a du mal aussi à retrouver notre attaquant qui se met moins de en tout cas dans un match de 90 minutes da ngay gis Souleymane pour mu mettre en évidence c'est très compliqué donc loolu yëpp si dafa nekk ay failles yoo xam ne da koy régler parce que bu gisee Lamine Camara ci deuxième yàpp la Lamine on l'a jamais vu au CHAN mu nekk ci registre boobu noonu il est toujours à l'intérieur du pour apporter des ballons donc dans dans l'intérieur mais dafa décaler a dóor gardien bi tàmpe loolu mooy waral ni sur les a encore donc sur dans dans le dernier tiers aussi qui se trouve être cette zone de vérité nga xam ne Malick Diop il est adepte même du dernier tiers xam naa dinaa ko laaj quest qui se passe <laughs> parce foofu la problème yi nekk. comment faire pour pour avoir euh, mooy le euh, mooy Papa Papa Diallo. Mm. nekk génération foofu war a dem fële ca Metz. mais dañoo gis ci CHAN bi si el si el bu ñu joué maanaam côté bi vraiment dafa presque match yu bëri il presque le le meilleur du match. Mm. mais cette fois ci Malick Daf mu ko joué la ci el droit parce que Samba Diallo moo nekk el boobu. est ce que tamit nekkul euh, positionnement bi tamit est ce que nekkul moo ko xaw a fële moo ko xaw a maanaam moo tax vraiment ñu ko doon gisee ci CHAN bi. gisiwuñ mm. ko ci ci ci CAN bi nii. oui xam xam nga c'est ci ci ci

loolu mooy waral alors qu'au CHAN on avait Malick Mbaye et pourtant et pourtant si qualification yi. Hmm. mooy euh, kii nii euh, comment il s'appelle le numéro 10 le capitaine. waay euh, mooy. Samba Samba Diallo parce que mat bal yëpp bi ñu marqué yëpp. Hmm. aile gauche la fa la ko jaaree fa la ñu marqué. bi mu nga bi mu ñëwee ci ci compétition bi nag. bi mu soo seetloo Samba gis na match bu bu mu mujjee def match bu baaxul parce que il n'occupe pas le couloir carrément donc Malick Daf il demande aux joueurs de jouer dans la récupération du ballon ci entre bi suñu projeté wu Pape Demba kese mooy génn. pour ñëwaat donc loolu nag système moo koy changer un peu quoi mais je pense que jeu de poche yooyu bu amoon ci CHAN bi c' pas la même configuration du tout. Mm-hmm. parce que ci CHAN bi on jouait avec des attaquants virevoltants Malick Mbaye moom xamul lu du daw ci côté. Mm-hmm. <laughs> Papa Diallo aussi on a utilisé on l'a utilisé sur dans ce avec Cheikh Ibra qui a qui a une euh, une taille assez élevée. Mm-hmm. boo xam ni mën na récupérer tous les centres qui venaient mais bu mu demee ba xam ni attaquant bu mënu def liggéey moom kese dafa ne au lieu ñuy jaar tout le temps ci côté yi on peut passer par l'intérieur du jeu pour appuyer wu ci Pape Demba loolu moo xaw a expliquer loolu par moment da gis papa day fekkee action mhm. day fekkee action mais euh, par rapport au parcours et puis ñu gis l'équipe qui monte en puissance un but à zéro trois buts à zéro quatre buts à zéro cette fois-ci comment faire def black out ci loolu yëpp def nag cette fois-ci quart de finale élimination constat bi ma def entre équipe bu CHAN bi ak U20 yi cest dire booy yi dama gis benn affaire boo xam ne seeni devancier amuñu ko booy dañ am fit non sérieusement ça moom c'est la première remarque bi ma def ci ñoom booy am nañ fit mën a dékku pression boo xam ne seen mag ñi fi jaar parce que mënuñ ko woon dékku imaginel ngay jouer match boo xam ne ima nga jouer contre l'Égypte ci dëkkam nga téye ko làbbali ko kaat chan ba tamit na mu demee woon match yi c'était tellement compliqué avec pression bu amul fen mais booy dañ ko dékku te loolu dafa baax pour un sportif de haut niveau mooy li mu doon wax ma sànq mantalement gis nga dans le sport de haut niveau psychologiquement si tu n'es pas fort tu vas lâcher te loolu lan lay ubbi da ngay toog di xalaat xalaat bu bari mooy indi doute te doute mooy lay perdre loo say moyens maintenant nag comme ni ñu koy waxee étape par étape la Euh, genre mini championnat bi jeex na. Mhm. élimination directe la. quart de finale bi li ñuy lijjanti amul ay non dañuy gagné yi coupé nañu ñëw teg xam seen adversaire parce que le travail de scouting aussi. Mhm. c'est-à-dire xool adversaire bi. Mhm. tegal booy ku ci nekk nga xam kan ngay jàmmaarloo Adja laay taset. Adja xam naa ne côté gauche mënu ma fa jaar falaa koy yóbbu. xam nga yooyu des fois dañ naan entraîneur entraîneur mais la chose se passe sur le terrain. te booy yi ma gis nii man am naa yaakaar sérieusement fit gi ñu àndal ah ni ñuy fubalee mais jusque ci lenn rek laa tiit mooy le dernier geste. te loolu bu ñu demee ba le président de la république di ci wax. <laughs> daal non il faut ñu wut ay attaquants yu ñu dugal parce loolu aussi c' est un mal sénégalais. mais attaquant nag yenn attaquant yi c' est une perle rare mais Adja li Cheikh Omar wax c' à la formation. Mm-hmm. à la base. Mm-hmm. ñuy ñëw di dernier geste yi. loolu ñun moom dañ koo tàmm. Mm-hmm. Sénégal moom dañoo tàmm raté mais xoolal xoolal xoolal xoolal CHAN bi ak U20 yi mais booy li ñu raté. Mm. heure bii waroon nañ weesu wii bi. ci UVA yi. booy li ñu raté yëpp heure bi on devait être à 16 ou bien 17. mais bon na ci ñëpp jàpp ñu ñaan et puis. gëm na ne booy war nañ mën def liggéey bi. incha allah. alors et pour le quart de finale peut-être face au Mozambique qu'est-ce qu'on peut attendre Cheikh Oumar. oui bon c'est vrai que l'adversaire n'est pas encore euh, su su ñu amee équipe yu mel noonu moom. Mm-hmm. xam nga y des équipes qui sont défensives te Sénégal. sooy dajeeg ñun ñun. et qui sont trop costauds qui sont très costauds qui ont un physique. parce que gis nañ ne face au Nigéria ils avaient énormément de problèmes. surtout première mi parce que en fait xam ñun ñun on n'a pas besoin de dominer le match. ñun moom li ñu soxla mooy dominer ñu après ñun on se par contre-attaque ñun loolu moom li Aliou Cissé doon wax sànq dans la formation c'est comme ça que ça au Sénégal c'est ça l'ADN de toutes les da ngay am problème pour déséquilibrer leen te pour nga déséquilibrer il faut beaucoup de mouvement beaucoup de mouvement loolu rek mooy déséquilibrer un bloc défensif compact il faut des mouvements varier le jeu donc passe courte passe passe passe longue nga nga alterner ko loolu moo la koy ak patience voilà loolu la moo la koy may ak une très bonne observation et puis des joueurs intelligents parce que foofu le jeu devient un jeu de petit périmètre à partir du bas il faut nga créer espace ci foo xamante ne y' a de joueurs qui se regroupent mm-hmm. parce que loolu mooy bloc ba maintenant loolu nag pour nga def ko foofu il faut que joueur bi intelligent mu am rapidité prise d' bi gaaw nga xam ne soo wanee bal ginnaaw sax di nga xam sa sa coéquipier lan la war a mën a def. fii la la koy joxe voilà euh, mooy favori pour jël li nga xamante avantage lay nekk wala inconvénient nekk ci li nga xamante moo di booy. waa xam nga ci ci ci mu ñëwaat ci ci lu grand bi wax en fait xam nga une équipe qui qui a un mental de fer c'est-à-dire les émotions là émotions positives su ñëwee su ñëwee da nga koy garder su négative yi nga transformer ko en émotion positive booy yabuñu Malick Daaf de. parce que soo leen xoolee rek mentalement ils sont prêts booy lu ñu bëgg a def ci bal dañ koy def parce que y a le coach aussi qui du toog en <laughs> moom il est trop exigeant. Mhm. te c'est football de jeunes il faut demander parce que xale ay booy lañ. donc mhm. ils ont l'énergie soo leen bàyyi ñenn ñi dañ dépasser seen dina am dépassement de de poste mais soo leen équilibré wax leen fu ñu war a jaar gëm naa ni ci CHAN bi li ma jot ci CAN U bi li ma a que le jot a gis yëpp lépp lu war a lu mu a def war Gambie seen adversaire boo xamante ne mook Sénégal mosul yomb <laughs> alors exigence su Malick Daffy laay ñëw mm. euh, hier dama ko gis à la quatre-vingt-quatorzième minute mu yuuxu ci kaw booy ba léegi sur une perte de balle alors tey son niveau d'exigence là est-ce que également c'est pas de trop pour ces garçons là yi nga xamante ne ba léegi ñoom ñu ngi jàng mm. waa xam nga jàng bi moom mais jàng soo nekkee moom jàng daanaka danga koy romb di nga am boog lu bëri liñ ci romb quoi parce que quand tu es en compétition c'est tu es en phase de maturation quoi en fait xale bi euh, comme ni man avec les u je suis carrément d'accord avec Malick Daf parce que U20 moom soo ko waxee rek tu es toujours. Euh, xale nga voilà xale nga quoi en fait te xale moom lu ñu ci xam mooy mooy bâton donc Malick moom <laughs> Malick moom booy soo leen bàyyi parce que booy soo leen bàyyi rek il faut star la def ci terrain bi. Uh-huh. moo tax il faut les cadrer ñu respecter pour man ça va quoi première période bu booy def. Mhm. bu ñu demee vestiaire ñib si gis nga du ñu indaale. c'est-à-dire waaw il il te met la pression man te les clubs c'est Daf euh, man ay joueurs am yëpp. Mm. léegi nag gars après gars bu ñu entraîné ba pare gars yi toog joueurs yi nekk seen seen foofu di seen salle di di di bëggee di foo quoi. Mm. Daf ak ñi nga xamante ne mooy staff am yi ñu toog di naan caayin mais am na benn joueur boo xamante dafa wax ay kaddu yoo xam ne kaddu yu xaw a déplacé Malick mu jël ay bagages ne ko dem ñibbi. non xam nga loolu yëpp ça ça joue mooy vie de bi rek xam nga y a yoo xam ne ils badinent pas avec ça xam nga groupe amee benn maillon boo xam day perturbé. Mhm. day affecté tout le groupe. donc mieux vaut nga libéré wu ci quel que soit ses mu mën di am libératoire de parce que day day day moom xam na li may wax nekkoon na ci tanière yi mm-hmm. loolu moom les les coachs ne pas loolu mooy caractère coach parce soo amul caractère joueur yabu la rek daanaka sa message dootul jàll donc je pense que on a le groupe qu'il mm-hmm. le banc de touche avec Malick Diop qu'on de passage mm-hmm. donc euh, tey je pense que dafa am benn liggéey boo xam ne ça se passe entre les entraîneurs parce que Souleymane c'est ça son son sa formation nga jaar ci ku ci mel ni Zo Senghor Pape Thiaw ñooñu c'est des tacticiens nga ñëwaat maintenant ci Cheikh Gueye c'est même chose nga ñëw ci Malick Daaf mu indi fugg bi indi verticalité dans le jeu donc loolu yëpp suñ ko boolee dem compétition mooy waral ñu am résultat yu ñuy am. alors euh, vieux peut-être euh, cette fois-ci le Sénégal qui est très attendu sànq rek Grégoire mi ngi koy mi ngi koy wax désormais il faut gérer match après match l'objectif c'est de retourner à la à la Coupe du waaw bon xam nga instant bi dañ nekk ci benn dynamique Sénégal moom. Euh, te il faut ñuy bañ a fàtte une chose. Euh, pour ñu gañee Coupe d'Afrique il a fallu que pour la première fois de leur vie sénégalais yi patient par rapport à un entraîneur. Mm. demul compétition indiwu résultat rek ñu dàq ko. Aliou dañ ko bàyyi jox ko temps. ba mu gagné. Mm. c'est la même chose avec ces gis nga xale nee na gis nga joueur da nga koy jubbanti ba muy nekk xale. Malick yooyu muy def quatre-vingt-quatorzième minute muy yuuxu benn joueur loolu mooy respecte-toi d'abord parce que nit yi buñ ñu la bëggee yàpp xam ndax am nga caractère dañuy bàyyi xel ci lépp. même bu ambassadeur lañ. et puis ça mm. euh, man li ma gëm ba gëm ba gëm booy même bu Malick sax waxul war nañoo mën a def le job parce que mm. ils doivent se dire Sénégal la ñuy représenter te on a les mm-hmm. pour gagner coupe bi. dem nuyu ji kilifa gi <laughs> mu am lu mu def. waaw ci wàllu affaire de gàncax mu ah, ah, mais ah, looloo fi la am léegi yow. muy seen xel sax <laughs> alors très, très rapidement la présence des équipes ouest africaines Sénégal Nigéria ñu ngi gis. Euh, ñu ngi. ñi ngi ñi ngi gën a présente. Euh, Gambie mm. euh, le Sénégal ak Gambie. ñoom ñoo demoon finale fi nga xamante ne moom mooy Nouakchott. Mhm. Euh, c'est quoi désormais le, le secret de de l'Afrique de l'Ouest parce que même dans les autres compétitions ñu ngi ñu ngi gis franchement une présence. Mhm. très euh, très euh, très massive des équipes afri ouest africaines je veux ah, dire. bon je pense que c'est le reflet des équipes A peut-être à quelques exceptions près mais sooy seetlu en Afrique de l'Ouest c'est vrai que. problème benn rek la ñu am muy infrastructure. Mm-hmm. mais Maghreb ñoo koy dominer ci petite catégorie. Mm-hmm. soo xoolee ñoom foofu dañu dañ foofu la ñu amee problème parce que Égypte soo organisé toog premier tour y' a problème mais ñun quand en termes de formation on a acquis quand même des choses yoo xam ne suñu ko renforcer mën nañ ci am dara. le Sénégal aujourd'hui a a vingt trois instructeurs CAF. yoo xamante ne ñu ngi ci ci maillage football national bi ci liggéey saa su ne donc soo demee dëkk bu ci mel ni Mali yaa Magasuba aussi qui fait partie de ces de ces instructeurs ah, la mm-hmm. Guinée mm-hmm. la Guinée peut-être xëy na am nañ quelques difficultés parce que qualifié wuñu CHAN dindi nañ leen di mm-hmm. mais quand ñu ngi kii la Gambie

ci benn niveau vingt pour cent ñun ñu nekk dix pour cent donc day am décalage de dix boo xam ne il faut ñu dem rattraper ko la question aussi des diplômes la lenteur des des diplômes grade C bi souvent tu vois tu vois des coachs qui derrière. donc mhm. loolu yëpp CAF bi daf ko war a xoolaat. suñu bëggee nekk au niveau gën koo harmoniser gis nañ euh, cette fois ci licence A bi même le sélectionneur national Aliou Cissé mi ngi koy wax désormais il faut que mu nekk équivalent mm. licence pro UEFA ah, bi pour qu'on puisse parler d'égal à égal donc yooyu yëpp ay ay ay chantier la yoo xamante ne faaw ñu kii ko sa euh, coup de ci tournoi bi ban la euh, tey gis nañ une très belle rencontre entre l'Ouganda et le Sud-Soudan aussi Sud-Soudan quand c'est vrai que c'est une surprise hein mais man je je reste sur le Sénégal en fait. <laughs> waaw bon le le Sénégal face le Sénégal et le Nigéria je pense que ñoo gën a nekk euh, équipe yi ma convaincre pour le moment euh, mais je sur le Sénégal quoi parce que en fait considération soo ko jëlee rek mooy xale yi dama leen xam en fait <laughs> ba tax na bàyyi mooy. des si ñoom quoi cœur moment bi comme terminé premier tour bi. bon le Sénégal moom moo gën a séduire mis à part le Sénégal je dirais la Gambie que. c'est pour man à euh, prime la ci li nga xamante moom la woon ne par rapport ak Sénégal li muy joué parce que c'est une équipe boo xamante ne assez sérieuse non seulement sur le plan tactique mais face au but aussi Gambie moom moo ngi indi tey benn sérénité boo xamante ne tey rares son les attaquants yi nga xam ne ñu ngi ci biir euh, tey euh, compétition bi ko woon alors di rappeler rek ne c'est sélection boo xamante ne tey maa ngi koy wax ce sont des joueurs pratiquement yoo xam ne ñoom ñëpp seen cursus ñu ngi koy def Sénégal ñenn ñu ci bëri. xëy na kenn kenn ràññewu leen noonu ñu bëri mais euh, entre le Sénégal et la Gambie pour man équipe bi nga xam ne gisoon nañ ko fii Thiès euh, rakku équipe boobu noonu wala boog c'est pratiquement la même équipe bi nga xam ne mooy donc euh, pour man Sénégal B mm-hmm. ñoom moo féete foofu noonu donc pour man ce sont les deux équipes yi nga xamante ni tey ci premier tour ba léegi ñoom ñoo ma gën a frappé Cheikh Omar mu ngi wax Nigéria mais Nigéria pour man dese lu bari loo xamante ne tey euh, même tey bu dajawaatoon ak Sénégal pour man score war naa mën a gën a dëgër. Euh, Babou. mën naa foo ko tuuti kii di Grégoire. parce que Nigéria a novice mais quand mm-hmm.

parce que boo xoolee saa ne Sénégal Nigéria boo xoolee les 45 premières minutes yu njëkk a joué Nigéria mënoon nañu dóor foofu 2 ba 3 0 foofu bu ñu gañoon foofu nga jël ñaari équipe équipe bële dañoo furudu furudu furut ay ponkal équipe bi nekk en face ay xale mais gis nga psychologiquement day damm moral booy nekk en face. dañuy ñëw taxaw xam na ne ñii mat nañu leen di jaay wala mat nañu leen pàpp. Mhm. dañuy toog finalement dañ naan est-ce que jar ñuy continuer de mhm. fekkee ne ne lii la te pour rappel boo leen xoolee. Euh, amoon na ay temps euh, ñun pays subsaharien yi. Mm. équipe bu naar yi dañu dañu terroriser woon. Mm. non dañu daan duma rek. Mm. muy petite catégorie muy mag ñeex loolu parce que ñoom dañoo prioriser woon seen formation ñun c'était pas pratiquement le cas mais ba ñu demee ba comprendre commencer di gérer suñu formation mais par force liggéey da ngay fayeeku te je vais dire une chose Sud Soudan euh, ci football bi tamit na ngeen ko bàyyi xel gis nga période bi basket bi di jóg. c'est une nation émergente mi ngi noonu. bi basket bi di jóg. loolu la gars yi doon waaye noonu non kii Sud Soudan mais il faut se mettre une chose dans la tête mooy que ñoom ñëpp c'est des enfants de réfugiés. Mm. loolu rek da leen di motiver. basket bi loolu leen motiver ba ñu yegg fi ñu yegg. avec une discrimination de des États-Unis benn soutien bu manifeste des États-Unis waaw mais xam nga boo xoolee comme par exemple basket bi le président de la fédération c'est un ancien joueur NBA. moom mm-hmm. da jël sorti de sa poche. Mm-hmm. nekk président ba pare nekk entraîneur. Mm-hmm. donc waaye moo tax mën leen football bi. nañ leen bàyyi parce que dinañ ñëw. yaa ngi leen di soutenir ci suuf. am na ñu xamul. mais man xam naa ne yaa ngi leen di soutenir pour ñu ñëw. alors euh, très rapidement on parle euh, de la ligue professionnelle avant de passer au basketball euh, la transition est bien faite Grégoire am nga jàngat bu am solo boo ñu defal ci la phase aller. mu ñëw naka jaa pàcc bu njëkk bi nga xamante ne gis nañ ci tey ay ponkal yoo xamante ni gisante nañ ci baax a baax ci li nga xam moom mooy du rebondissement mais également des clubs en difficulté à l'image naka du Cneps Excellence de Thiès nga xamante ba léegi xamul fan lay teg tànkam. football bu mot sëkk bi yu bëri loole la ñu doon xaarandi rek ci ubbiteg Ligue 1 mu mel ni pàcc bu njëkk bi firndeel na ko bu baax a baax Stade de sa Dakar te ngay Teungueth si ba ci Génération Foot jàpp Casa Sport ñëpp rek daal di firndeel seenu taxawaay bu baax a baax ci bëccëg yu njëkk yi la sax yi lekk tenor daal di rek dëgëral seenu taxawaay nañu jeexale woon saison bi ñu weesu ginnaaw si Linguère daal di rek. tëgg-tëgg yu am solo ba ñu demee ca ñetteelu pa bëccëg ba ci kanamu Dakar Sacré Cœur jamono ja nga xamante ni rek génération foot ma nga doon nërmeelu ci derbi ba ko boole woon na ak Tëngéej FC Casa Sport daal di rek làbbali championnat bi la sax ci ñeenteelu pa bëccëg bi daal di rek wonewaat beneen pa xar kanam ak génération foot mi nga xam ne fësaloon na ñaareelu pa la jëm mu daal di ko tegle Tëngéej FC daanu ca kanamu US Gorée bu fekkente ni rek tamit yi lekk surprise amoon na gisoon nañu tam teewaay bu mot sëkk buggee jawaay FC Casa Sport moom tamit des rek di gagné champion en titre bi lee gën a sax dëgëral taxawaam ca juróom-benneelu benn bëccëg ba jamono ja mu fekk jee Linguère foofa sax mu def ab prox ndoll ci temboo yi nga xam ne fësoon na ci génération foot ak AS Pikine mu mel ni rek grenat yi ñoom tamit seenub saison daal di woon a am beneen tournoi ginnaaw si sax lañu rek daal di mujjee xoddeeku daal di fekki AS Douanes daan ko ñaari bal bu fekkente ni rek yi lekk ponkal tamit seenub taxawaay mat na ñi excellence bu Thiès sax kenn xamul fa ñuy taxaw club bu cees bile sax wéy rek di tegle la nga xamante ne ni moom mooy ay defetam ci bëccëg yi nga xamante ne rek jot nañu ko jogante jamono ji mu am rek lu toll ci ñeent ci ay poñ góor différence am daal di toll ci moins quinze. bile ko championnat tamit ca pàcc bu njëkk bi fësal na rek ak Casa Sport bu daal di jiite moog Guédiawaye FC ak Jambaar donte sax rawante gi bëriwul mënees nañu gis seen uppa ginnaaw te ngay jëf see ba ca Dakar Sacré-Cœur ca biir championnat bi Jaraaf Pikine ak Génération Foot mu mel ni rek seeni jéego dafay juwatlu mu euh, Euh, ndar képp nañ ko nag dimanche bi ñu génn mm-hmm. jamono ji ñu ngi woon ci huitième de finale coupe de la ligue waaye ni mu ko waxee CNEPS excellence avec ses vieux démons mm-hmm. loolu moom faw ñu wut ci li nga xamante ne moom mooy solution bokk na ci projet njiitu fédération sénégalaise bu football bi ñu koy tàbb bokk na ci ponk bu njëkk muy toilettage li nga xamante ne moom mooy teg ci fédération peut-être bu ñu ko defee ba lépp leer dinañ xam kii est qui et et qui doit et qui doit faire quoi parce que loolu aussi il faut que mu am parce que depuis quelques semaines Euh, situation bi mi ngi perdurer et on attend que la Ligue sénégalaise de football professionnel prenne ses responsabilités en attendant on va revenir sur l'aspect technique ci li nga xamante ne euh, Grégoire moom mooy euh, cette euh, première phase aller Euh, bu euh, saison deux mille vingt mille vingt trois alors euh, ak Cheikh Omar ma je me demande tey lan moo doxul entre ces ténors la moom mooy le Jaraaf encore PS Pikine jàpp génération foot yi nga xamante ba léegi mënuñu tey confirmer seen rang par rapport ak la saison dernière. mooy xam nga en fait club yi moom <laughs> club yi moom souvent Sénégal dañ naan. soo defee benn saison tu tu peux beneen bi ñu su ñëwee rek daanaka tu peux tu peux te retrouver donc génération foot euh, c'est une grande c'est une grosse surprise parce que soo xoolee le nombre de joueurs qu'ils ont formés ak euh, nombre bi ñëw ci ci équipe nationale yi ak résultat bu ñu am en championnat c'est un peu c'est un peu problématique bañ nañ dem nañ nag bay bañ a jouer tant que <laughs> seen joueurs yi jógewuñ compétition loolu tamit c'est c'est une faiblesse mais je pense que c'est la première partie du championnat le Jaraaf aujourd'hui manque de tueur le pour le mais match yi ñuy pour ñu dugal c'est tout un problème donc je me dis que. tamit est-ce que nekkul tamit Iba Mar fii. terrain bi terrain bi c'est catastrophique terrain bi c'est un facteur oui terrain moom c'est un c'est un facteur. mais j'ai j'en ai discuté avec le directeur sportif Cheikh Cheikh Sidi. oui mais c'est vrai que il, il, il manque ce tueur là d'ailleurs actuellement ni am na quelques jours yu nga xamante ne dañ leen jël pour xool leen xool ci ñu ci bari. nga xamante ne c'est pour renforcer le groupe mais je pense que euh, sooy wax waxu jaraaf moom dans le recrutement xëy na y a des choses à soigner davantage pour soo demee bay recruter en pré-saison nga mën poste bu nekk nga mën ko doubler au moins pour mën a pallier à certains à ces genres de manque là parce que ils ont un entraîneur euh, qui n'est à présenter donc qui est capable de dénicher de très bons talents Youssouf mais, dans la globalité de leur projet je pense que Euh, il faut aller marquer les buts parce que c'est faible en fait le ratio de buts est trop faible même c'est valable même pour pour Casa Sport. mais c'est la ah. parce a on a hmm. c'est c'est Casamance di di di Casa Sport. li boobu lañ retrouver gul je pense que ils peuvent retrouver en deuxième phase parce que en fait équipe bu ci nekk tey dellu nga pour defarwaat ci say base. Mhm. Euh, am xar kanam bi ngay indaale mais le Casa Sport a réussi quelque chose boo xamante ne ñeneen ñu réussiruñ ko c'est-à-dire il est en train de maintenir le cap en termes euh, de joueurs non seulement en termes de joueurs mais en termes de projet parce que en su bu muy ñëw il a été clair dafa ne président soo ma yàkkamtee jaruñuy liggéey parce que je vais tout le temps qu'il faut pour bâtir une équipe mm-hmm. coordonnée entre les juniors euh, ba ñëw ci seniors yi et c'est ce qu'il est de réussir actuellement au Casa Sport tey poste boo fa dem mën nga fa trouver fekk un joueur de très bonne qualité boo nga xam ne dafay évoluer loolu mooy waral ñu def résultat ñu def nii mais je me ba tey des na parce que ils ont 25 points sur euh, possible donc ba tey je pense que dans la globalité am na yu bari yoo xam ne dafa des mm-hmm. mais additionné au fait que aussi y a le par là yooyu yëpp xëy na c'est des détails qu'il faudra prendre en considération mais attention au Guédiawaye FC. waaw ñu ngi ñëw ah et puis a une stabilité les moyens sont là y a le président Lat Diop qui pousse derrière président y a Souleymane Diallo a de très bonne qualité Assane Diatta. Mmh. qu'il faudra surveiller. parce que c'est un joueur qui est de montrer de très bonnes choses cette année donc Sané le latéral qui qui n'est plus donc foofu Guédiawaye je pense que gis yoo xam ne daal ak euh, collectif boo xam ni Casa Sport xëy na menace am gisoon nañ une bonne entame mu commencé di traîner les pieds. mooy xam nga xam nga tënkee xëy changement coach yi fi jot a jaar ak yenn jours yu départ loolu yëpp ça joue parce que en fait après le change ils ont libéré Ousmane Ousmane qui qui qui faisait voilà Ousmane Diouf qui parti du côté de Al Hilal qui faisait le poids de la défense centrale de Tënkee donc loolu mën na nekk un élément après y avait Pape Mamadou Sow qui est parti. presque avant ñuy tàmbaliwaat considération yëpp mën na nekk xëy na loo xam ne day xaw a ralentir parce que changement staff wala day am répercussion souvent ci équipe. Mm. mais comme je l'ai dit il faut laisser le championnat se dérouler correctement ñu xool liy ñëw douane aussi ils ont des difficultés. douane je pense que waaw <laughs> douane moom. douane tamit dañu am problème parce que douane justifie leur marché mais booy yi souvent course bi day yuuxu ba mais booy aussi ils ont des déchets techniques ils ont des <laughs> neexul quoi <laughs> neexul quoi. alors bien rapport ak gis-gis bi nga am ci championnat bi malheureusement Cheikh Gueye est parti stade de mais gis nañ quand même stade de muy xaw a dellu si waat et tout en pleine saison loolu xëy na mënul ñàkk mais pour championnat buy commencer di émerger par ndànk-ndànk. am na yoo xamante ne mun na si mun nañ ko peut-être évité bon man xam nga li ma jàpp mooy euh, ci lépp loo gis walla ci lépp looy dem il faut la stabilité. Hmm. les facteurs déstabilisateurs pour une équipe c'est soit entraîneur yuy valse hmm. walla jour yu dul toog walla dirigeant yuy xëccoo te ñett yooyu dafa bari Sénégal. Hmm. man euh, li ma ci li ma ci gis lu simple la. xam nga mbir yi bu tegoo ci yoon euh, en amont championnat balaa muy commencé war nga mën a dem gëstu ji xool yi ay joueurs yu baax. Hmm. mais Adja des fois lu dugg ci nawetaan bi gis nga li ñuy wax naan li ñuy toog naan non équipe bi amul un attaquant tueur da ngay dem fekk ko ci nawetaan bi cest à lu tax gars yi duñu dem ci nawetaan bi di jël ay joueurs indi man des fois damay seetaan match championnat yi. des fois je vois du beau jeu. mais am na ñu koy def de comme ay ice pick nag yooyu. waaw mais xam nga le le eh, propre de yenn équipe yi comme ay NGP ay AS Pikine ay Guédiawaye yi kooku ay équipe koñ la. ñoom normalement seen base moo war a nekk seen joueurs yi dëkk foofu. loolu war a nekk le projet mais imaginez ñu ne la NGB sur vingt trois jours supposons vingt deux yi dëkkuñu fii. mais on n'a rien contre HLM c'est-à-dire je donne un exemple. Mm-hmm. HLM est-ce que warul woon liggéeyal pour pour ñaari tali yi c'est-à-dire ñaari tali ak HLM presque benn la. Mhm. maintenant désormais ils sont divisés te HLM mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yéeg. Ligue 1 la jëm. waaw mais xam nga. ci ça fait le euh, problème du football sénégalais. gis nga c'est un problème identitaire man HLM laa dëkk. Adja noo man ñaari tali laa dëkk xam nga ku ci nekk day xëcc jëmale ci booram. c'est des base HLM ñaata équipe bu nawetaan fa nekk ay équipe yu baax de très très bons joueurs ñoom bu ñu demee ba gis ne ne war nañoo mën a taxaw mais dañuy taxaw ñaari tali tamit même chose mais xam nga li may wax les facteurs déstabilisateurs yooyu vraiment dafay sonal groupe te motivation bi tamit daf ci am solo parce que on parle de ligue de football professionnel mooy maanaam payoor gi booy boo leen motivé wul dañuy dem di dem ay Soudan ay Zimbabwe sax boo xam dañ fay dem mais vraiment bu ñu leen waree mën a téye nañ ci def lii war moo tax keroog bi président di recevoir waa Chandler Beach Soccer mais wax na ko il faut il faut y réfléchir pour xool exactement lan la ñu war a mën a def pour rendre attractif ce programme euh, dont on parle ce championnat local d'accord alors euh, très rapidement on passe au basketball li ñu dese ci waxtu. bëreetul il nous reste. <laughs> waaw man aussi ay saal buñ defee résultat fii laay toog ci plateau bi wax ko alors Babou on va parler des éliminatoires de la coupe du monde 2023 de basketball avec euh, ce parcours un peu difficile des Lions. euh, deux défaites et une victoire heureusement qu'ils ont sauvé le meuble tout à l'heure euh, vraiment deux matchs mu nekk euh, am trois matchs plutôt am ci deux défaites ak li nga xamante moo di victoire tey la ñeen joué ak suñu dernier match ak dëkk bi nga xamante ne moo di Cameroun ci lañ dóor Cameroun mais teewul ñi nga xamante ne ñooy suñu gaynde yi euh, maanaam daanu nañ mais maanaam wanewuñu maanaam la la ca nay lasar parce que vraiment am nañ joué nañ am nañ ay manquant parce que ki nga xamante moo di Gorgui Sy Dieng nekk la capitaine di la mën di mën na doom bi fekkewul li nga xamante moo di compétition bi nekk na mu nekk lu ñu lu trop trop trop ñu wax ne tamit euh, compétition ñi majeure partie des joueurs ñu si bari bari ay xale lañ te am nañ li nga xamante moo di seen avenir devant lui ñu wax ne rek ki nga xamante tamit moo di fédération bi dañ continuer jàppale ñi nga xamante ñoo actuellement nekk jàpp naa ni actuellement Adja Euh, si base bu mu nekk di liggéey ne pour li nga xamante ne mooy euh, maanaam basket bi jàpp naa bu ko téye nii ba fii incha allah fii ak 2025 coupe d'Afrique bi nga xamante ne war na war am Sénégal war na ci mën a wane li nga xamante ne mooy di boppam malgré kas euh, qualifié wuñu li moo jëm si mondial bi war a am si fii ak ak ak mois teewul ñi nga xamante ne ñoo di gaynde yi peut être ñu ngi jaaw ñu ngi wax ne Adja maanaam match yi nga xamante ne moo coow yi amoon ñu dem Égypte match bi nga xamante ne ñàkk nañ ko suñu deux matchs yooyu ñàkk nga xamante ne ñàkk nañ ko ak euh, maanaam RDC mu nekk équipe bi a maanaam bi a faible ci tournoi bi ñoo gagné Sénégal mm-hmm. moom jàpp ñëw ak vieux pour parcours Lions yi fële à Alexandrie mm-hmm. ci cinq cinquième et dernière fenêtre bi Ngagne Demba Gana est revenu moom il a fait un tout petit peu diagnostic décryptage au euh, parcours où protégé voilà moom wax na vraiment amul nga mu ngi gàccee ngalamal ñi nga xamante ne ñoo di ay ndawam malgré victoire ak défaite ñoo ànd na gars yi di gën liggéey rek ñu xool yi nga xamante ne moo di réaction bi ñëwaat si plateau bi. tournoi bi man affaire positive la ñu jëlee le début premier match euh, a bien joué pour la troisième a ñëw après euh, match bi. mais deuxième match bi man moom mu gën a metti defet boobu parce que je pense que Tunisie mënuñu quoi mais Espagne dafa feeñ foofu parce que booy ba troisième quart bi match tey serré te ñoom seen seen joueur Espagne ak ma def différence bi foofu en troisième quart-temps bi jeex ñu mën onze points après da ngay gis ne ci jeunes yi manque d'espoir dafa feeñ dañ doon jël ay tirs gaaw parce que lañ commencé def défense agressive si grand kaw ñu am ay turnovers ñu dugal si parce que lañ bi Match Cameroun, on a très bien joué. Je suis vraiment fier des jeunes parce que ce n'était pas évident. Hein? Après le match bi démb nu ma gisee joué si vestiaire yi xam nga c'était triste te ñëw nañ tey joué match bu baax ah un très bon match ñëpp ah ñëpp ñëw ñafe joué match bu baax yàlla daf ñu gagné match bi surtout les jeunes ah comme on dit comme Babacar Sané nga xamante ne joué lu moo ko contre euh, Tunisie parce que affaire expérience laa noo xalaat quoi mu match yooyu moom expérience mais aujourd'hui m'a montré qu'il a grandi yéen mais lii la yàlla dogaloon ak ah, ñu bi ñu ñëw fii victoire trois victoire ñu yàlla nii la ko bëggee woon on a gagné un seul match deux matchs difficiles surtout surtout dans une équipe très bonne équipe ah très bonne équipe mën a wane leen ñu gagné ñu mais liggéey moom lu soo commencé quoi enfin liggéey bi si lay commencé surtout vacances yi commencé def ay camp ak jeunes yi yooyu yëpp pour préparer à Coupe d'Afrique incha allah 2025 merci. voilà c'était la réaction à chaud du sélectionneur euh, des Lions de basketball Gagné Sagana Diop fële ca Alexandrie vieux un commentaire par rapport à cette réaction de Gagné Sagana. bon man je pense que soo ko dégloo nga xam na ne il est déçu hein. parce mhm. que il voulait faire mieux que ça. Euh, suñu borom neneen lu ko décidé mais bon man xam nga li may wax boo ko dégloo ni muy waxee ñu ngi insister ci expérience bi te ça a fait la différence parce que soo xoolee euh, comme par exemple match contre Tunisie ñi euh, gagné match bi réellement mooy paay ci quatrième quart bi benn Rome daan la ak Maxwell. et l'américain naturalisé Rome. waaw ñu pratiquement samay moroom lañ. Hmm. donc ñoo gagné expérience li ñuy wax tout le temps dafa am solo ci sport dafa am solo ci àdduna Sénégal chaque fois dañuy def erreur bu ñu jógee ñu ne dañuy rajeunir jël ñu bëri pousse indi ay xale certes dinañ am talent hmm. te vraiment je suis pour ñoom quoi parce que xam naa ne déception bi rëy na. góor nañ dem jouer ji coupe du monde parce que mooy li gën a neex mais il faut se poser la question à savoir ana suñu yeneen joueurs yi nga xam ne dañoo am expérience lu tax ñëwatuñu équipe nationale comme kan mais quand tu vois un Amady Ndiaye il fait partie des meilleurs pivots de Pro A ñëwatul équipe nationale Maurice ñëwatul équipe nationale euh, Maurice Ndour Djibril Thiam kenn gisatu ko même Mohamed fay ba léegi ñu ngi basket cette expérience la gis nga des fois soo xoolee solo jabate Côte d'Ivoire ba mu ñuy gagné demi-finale lan la ñu gagné expérience te j'avais alerté deux jours avant ñu leen Côte d'Ivoire nii lay jouer parce que xam nañ ne ñun ay booy la ñu yore. Mhm. mais dañ leen di waaxu solo moo ñëw. il a fait le job. parce que xam na fi mu war a jaar ay booy la amal affaire maintenant booy du ñu xam nan la ñuy def pour réagir. des fois nga gis même nii da gis si réseaux sociaux yi gars di clash joueurs yi di clash tel man loolu du ci fekk cest Euh, préparation pour dem équipe nationale du ay caaxaan. joueur dafa am noo koy jàppale ba mu yéeg man je me rappelle bi may ñëw équipe nationale da fekk ma ñor xob du ma gis lu ma tiital moo tax sama premier match contre Angola la tasel contre le meilleur joueur d' Afrique en moment là. Mhm. Euh, Moraes. Mhm. dama ñëw dugg Mohamed fay changé man maa koy jël. teere ko mu basket ba pare defal leen ñaata vingt xaw ma vingt quatre xaw ma ñaata point euh, pour man donc daf ci am solo. il faut que les gens reviennent à la raison ñu bàyyi ay affaire de euh, kii nii la mel waratul ñëw équipe nationale wala tel wala tel wala tel c'est le Sénégal moo soxla donc nañu jël suñu doom yi gën a baax ñu indi leen booy yi li ñu mën la ñu wane il faut que ça soit très très clair parce que quand loo mën mën mën mën mën basket mënoo ñëw comme par exemple un Papy Badio ñëw taseex benn mag troll boobu américain bi mais bu ko jaayee expérience pour mu génn ci dafay xaw a métti même si le jeune il est talentueux. il moo tax ils l'ont fait déjouer d'accord face à la euh, Tunisie. fi may moom mooy da nga xam ne kenn gisatu leen dans cette sélection là. Mm-hmm. alors est passé par là tey problème bi nga xamante ni gisoon nañ ko bien avant ñoo disputer la précédente fenêtre donc tey est tey le basketball sénégalais n'est pas victime de son management. bon xam Euh, je prends Adja à témoin Babou euh, man yàgg naa wax yàgg naa kaas euh, du damay joxoñ nit ne Adja woy tal tal tal non parce que li ñu boole yi nga xam ne ne ñoo ko moom ñun sénégalais yëpp les sénégalais sont déçus man j'ai reçu tellement de message mais man dama leen di jéem a defal ku message dama lay tontu ne la non xam nga équipe bi équipe jeune kër mais en amont les gens on fait des erreurs. d'abord par rapport au management parce que euh, quand temps benn année le président de la fédération jóg ne ne non dañuy rajeunir coach bi ne ok on va rajeunir rajeunissement c'est un entraîneur qui décide te da koy def progressivement xoola bu baax yeneen équipe nationale yi suñuy rajeunir yi ñuy dugal ñaar walla maximum ñett mais au Sénégal dañuy jékki-jékki rek pousse mag ñu bari ñëw indi booy ne leen kaay leen te booy bu ñu leen préparé wu au haut niveau ça risque d'être compliqué et puis y a l'épisode de Boniface mënoon na ñàkk. même épisode mooy fenêtre boobu moom c'est catastrophique. mais c'était la troisième fenêtre bi moom à Alexandrie c'est catastrophique. même bien avant épisode Adidas bi aussi parce que xam nga ku nekk di liggéey mais des fois ay problème dina am entre entraîneur ak dirigeant mais gis nga il faut être gentil dans la vie. loolooy management. pour yow eh, eh, eh, euh, l' épisode de Adidas cassure am na foofu. fala mooy répercuté wu ba léegi. fala affaire yi commencé di yàqu mooy li ma doon wax sànq ci Aliou Cissé Aliou dem na fi campagne il se casse la tête gars yi demandé ñu dagg ko dirigeant yi dëgëral ne non dañ ko fi bàyyi mais ñu bàyyi ko fi bàyyi ko fi bàyyi ko fi ba résultat yi commencé ñëw xool leen Sénégal léegi petite catégorie yi topp ci mais basket benn compétition ñëw ñu dagg la. benn compétition ñëw ñu dagg la finalement même par rapport au choix des entraîneurs nan lay demee doo comprendre Adidas mënu fay nekk xam-xam ba mu yor foo dem bitim réew ñu leen ñu lay laajte ay Adidas mais le Sénégal regorge de de de de, de bons entraîneurs ci côté basket bi nii non Adja mais ay kàngam booy toog di waxtaan ak ñoom ngay comprendre parce que ñun ci seeni loxo la ñuy jaar te ba léegi ils sont actifs mais ana ñu ñooñu ñëpp. kon finalement si ça devient compliqué ñun ñoo nekk di perte te basket bi moo daan gagné te xam nga lu gën a garaaw da daan gagné nekk ci jékki-jékki commencé wàcc quand les gens alertent ñeneen ñi nekk dans la bêtise di jàpp ne ne non lépp mi ngi dox te fekk ne ne doxul mi ngi nii lañ doon caché c'est c'est là la résultat de liñ daan alerte di waax di c'est pas parce que diw neexuma mais basket bi ñi ko jiite. man mii di wax yëpp jàmm laa si xam ñoom leen di romb di leen nuyu tel tel mais dañu yor xam ne ne ñun ñoo ko bokk mais nañ ko doxal yoon teg affaire yi ci lu leer parce que tamit y a une particularité. mais mais hmm. teg affaire su leer mooy cest à fii ak quelques mois ñu jëm si assemblée bu dee yéen am seen mot boo xamante ne war ngeen ko mën def ci basket bi yàggatul quelques mois teg ngeen ngeen maanaam teg nañ géew gi ngeen dem sëg a bëri ak ñi nga xamante ne aussi. man néew ma néew ma ci logique puusal ma toog wala logique bu pos li may wax lu leer. na mais yow mënoo ko sax. xam nga lu tax président de club de. mi ngi noonu waaye tamit texte yi <laughs> dañ koo changé ku newul président de club bu la neexee nga présenté wu. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que. Babacar Ndiaye dañu bëgg a faluwaat Babacar Ndiaye il n'est plus président de club. il n'est plus président mm-hmm. te looloo tax mu changé ko. mais il est président sortant. même bu dee président sortant xam nga changé texte fekk yaa ngi si sa deuxième mandat. nga changer texte pour mën a bokk. d'accord xam nga coow li. Euh, vieux ci mm-hmm. management bi faaw ñu dellu si waat ci équipe bi. Mm-hmm. Euh, problème am na. Mm-hmm. le métronome. cette équipe c'est Gorgui Sy Dieng. changer na club. NBA soxla nañ ko. NBA dafa am législation boo xamante ne FIBA moom mënalu leen dara. mais est-ce qu'il y des possibilités de faire libérer ce joueur. bon xam nga ci kaaw góor gi dafa dafay compliqué. comment parce que xam nga. parce que est-ce que bu fi nekkoon. Mhm. li am face au Sud Soudan dina am. bon amaana xam nga moom c'est une pièce maîtresse. Mhm. bu ñëwoon amaana lii mënoon na bañ a am. Mhm. mais nag je vais dire une chose Sud Soudan tamit ñun ëpp ñu leen joueur. ils ont énormément de joueurs yoo xam na ne ñu ngi. ñaa ngi NBA ñenn ñaa ngi championnat universitaire. mais kenn mm-hmm. mënu leen libérer. mais est-ce qu'il y avait une possibilité. en mm-hmm. accord avec le club de Gorgui-Sy-Dieng. de mm-hmm. faire libérer le le joueur. y avait des possibilités oui ou non. bon je ne pense pas parce que législation NBA moom. c'est très carré. en dehors des assurances qu'il faut payer est-ce que mënoon nañ def leneen c'est-à-dire bu ñu permettre woon Ngagne Desagana mu dekk en contact avec le président du club. wala son entraîneur. ne ko on a besoin de ce joueur là. parce que des fois ça se fait ci football bi est-ce que c'est possible même si des fois législation elles sont un peu différentes. waaw mais loolu en fait ça ne dépend pas du club. kooku c'est la NBA. la NBA. ci boppam. ñoom ñooy taxaw ni lii le monde nañ ci ànd. amul ay beddeeku naa non bon Adja bàyyi naa ko mu dem basket yi après mu dellu si waat loolu amul et bon temps yi. avec góor góor gi avec son club. demee moom noonu noonu. tamit ay ay donc il fallait mu toog concentré wu entraîné wu. pour mën am

xamante mooy suñu troisième match bi ñoo tey ñoo Cameroun mm-hmm. presque ay booy kese ñoo ko joué mm-hmm. mais tey tey dañ si génn ay xale yu ndaw ñoo ko joué ñoo si génn ah expérience bi xam nga xam nga lii ci Cameroun du comme par exemple Tunisie mm-hmm. ma jox la benn exemple bu ndaw ñaari pas yi ma la doon wax benn Ramadan ak avec l'américain xam nga lu ñu doon def soit dañuy dem dugal bu ñu mun dugal y un troisième larron. ñu troisième larron bi kan la Abada. ñu poussé le faute Abada moo doon sànni trois points. sàcc sàcc ñoom bu ñu duggee. gars yi tëj xaw a Abada dem taxaw fenn ñu jox ko bal bi. Mm-hmm. moom day jël rek sànni te yàlla ñi li muy def chaque fois bu doon sànni day dugal te xam nga loolu euh, xel la gars yi di deme mm-hmm. Tunisie da leen doon xool xam na ne non ñu ngi doon sonn expérience moo waroon may les jeunes sénégalais là. ñu teg leen pression gis nga am na yenn yoo xam ne du entraîneur koy décider ñun je me dañ daan toog ñu xam ne ne équipe bi ñuy taseel nii physiquement mënuñoo dem coach ci kaw lañ leen di jël ñun ñooy décider dem jël leen ci kaw te xam nga loolu du question de xamuñu wala mënuñu manque d'expérience moo koy waral mais xam nga ne ñoom bu ñu xamoon na ne instant boobu Tunisie bu ñu leen jëloon ci kaw teg leen pression ñu bàyyi ils allaient le faire. parce que mm. booy xam naa leen. ay xale yu ndaw lañ et puis ñu ngi entraîné wu. non ci management bi lay dellu ba léegi. parce que mhm. expérience ak lañ lépp yaa ngi koy wax mais au niveau de fédération là xëy na Babacar Ndiaye n'exclut pas de se présenter de nouveau ngir daal di jëliwaat beneen man. est ce que tey c' est le c' est le candidat qu'il faut à ce basketball sénégalais bi nga xamante sur le plan africain mënatuñu dem fenn. Euh, mais également tey ci li nga xam mooy les clubs ñu ci bëri tey ñu décoller parce que bëri na ci tey difficultés yi nga xam dañu ngi ko évoqué pourtant moom mu ngi continuer di ko def confiance est-ce que bon xam nga mooy li ma bëggoon wax sànq. Mhm. Euh, basketu senegal dafa am fu mu toll woon léegi ñëpp constaté nañ c'est-à-dire euh, même ku mënul gis sax di nga dégg. am na fu mu toll woon ba nga xam ne ne Sénégal dañu daan tudd. Hmm. mais léegi xoola Sénégal fi ñu toll. si ça devient compliqué c' est très très compliqué club yi ñoo ma def confiance bu ñuy dem ba Sénégal une équipe boo xam ne ne mi ngi tudd association des entraîneurs et éducateurs de football de Guédiawaye di compétir basket mais là <laughs> c' compliqué te boo yooyu bi ñuy bi ñuy ñuy sol maillot football. am na ci koo xam ne sax maa ko gis mu ngi sol ay tout terrain football. mu ci terrain basket. c'est-à-dire nit yi respecté tuñu basket. ak yenn jëf yi. parce que lépp mais loolu fan la ñu ko mujjee championnat. mais championnat basket. association lan de football de Guédiawaye. ban niveau lañ jiyee. je sais pas xaw ma petite catégorie la xaw ma je sais pas mais am na yenn yoo xam ne boo ko defee nit yi dañuy xeeb suñuy nawle ñoo xam ne ne ñoo ñu waroon jox cër. dañuy dañuy dem mais la majorité des clubs yi dem assemblée générale duñu compétir ils ne compétissent pas. alors bien la dernière question ñu tëj dafa xabaal bal nañ maintenant l'entraîneur a parlé de l'Afrobasket 2025 mm mhm. -hmm. le président moom tamit a dit Maître Babacar Ndiaye dimanche bi rek jàllale nañ ko que ne pas se qualifier à la coupe du monde c'est pas une défaite <laughs> je lui encore sax reposé la question est-ce que loolu du manque d'ambition maintenant avec ñan lañ war a demee ci coupe ci Afrobasket 2025 boobu bon xam nga am na yoo xam ne 2025 moom dafa sori mais la chose actuelle actuelle actuelle gis nga Adja équipe nationale bu ñu koy manager du ay caaxaan gis nga même dirigeant yi war a dem sax dañu war a nekk ñoo xam ne ne ñu gis benn baabu stressé na nga war ko mën a xëcc dalal xelam waxtaan ak moom lu jëm ci basket mais ñi ngay voyagel xamuñu basket xamuñu kañ la jour stressé xamuñu kañ la soxla conseil ñu nga yóbbu leen pour lan te nga bàyyi fi ay ndaanaan mais quand tu avec les filles mën nga yëkkati benn antasi yóbbaale ko benn Nathalie Sagne yóbbaale ko mais ñooñu mën nañ ànd ak groupe bi booy bu ñuy dem yenn match yi ñoom ñooy toog di leen conseil di waxtaan ak ñoom. elles mi ngi noonu mais ñooñu ci boppam léegi dañ leen cëralatul man bu may dem bay dégg ci groupe WhatsApp un président de ligue de basket di traité de Nathalie Sagna de yenn tur yi mais finalement je me Euh, comme li may wax rek ça devient compliqué et c'est vraiment dommage pour le Sénégal. merci beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de ça. alors euh, euh, très rapidement Grégoire on peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé entre Reug Reug ak Sa c'est vraiment déplorable la lutte n'a pas besoin de de ça seen dernier face to face moo nekkoon démb. Mm-hmm. ndax ñu ngi jëm ci bés bu mag le 5 mars mu nekk affiche boo xamante ne très attendu ak le dernier mot. waaw jaa xam nga làmb dafa baaxoo coow waaye du coow yëpp parce que du coow li nga xam moom moo xew dem la ñuy encouragé xëppante gàllaaj yàgg na ci biir làmb waaye façon bi ñu ko defee démb ak tamit eh, yenn yi nga xam ne xew na bien avant tey yooyu noonu yëpp di am aussi. pour mm-hmm. man loolu la ñu war a njëkk a déplorer que tey mbëri bu ñu respecté woon tey. Eh, heure bi ñu jox waaye aussi nombre de personnes bi nga xamante ne jox leen ko pour ñu ñëw. Mm-hmm. pour man rëq-rëq yooyu image yi nga xam ne gis nañ ko donc xëppante gàllaaj bi mu ngi ñam moment bi Sa Thiès di traversé donc ndox jóge na ci moom ndox jóge na fële ba ci ay xeer la mujjee donc je me dis que pour man accompagnant yi ñoom ñoom ñooy tax tey ñu ñu ñu salte làmb ñoom ñoo tax tey sponsor di daw wala keneen ak keneen di daw donc pour man image u làmb tey ni mu taaroo pour man yeneen yëpp waratu cee mën a nekk xëy na nag dañ koy wax ba léegi ñaari mbër yi ñoom ñoo am affaire te yaakaar naa samedi prochain nañ jëflante ci biir arène bi. Mm-hmm. loolu moo ëpp importance kon ñu jël incident bi teg ko de côté sauf que nag mënuñ ci ko euh, bañ bañ a naxarlu parce que tey euh, kenn xamewul tey ki nga xamante moom mooy Reug Reug coow yu mel nii Sa Thiès naka noonu tamit ñoom ñëpp li ñu leen xame woon moom mooy ñëw def un show jaay seen combat. mais bu ñu demee tey bi yii nii di ci dugg rek euh, day doon loo xamante ne tey baaraamu tuuma dina jib mooy euh, ci ñaari mbër yëpp waaye aussi ci li nga xam moom moo nekk seen i camp donc pour man c'est une image boo xamante ne taaralul làmb mais également taaralul li nga xamante ni moom mooy sport en général. Merci beaucoup Grégoire. On espère que demain, Inch'Allah, le CNG va prendre les mesures idoines avant le combat. Ce sera le mars, mu nekk euh, drapeau bu ñu doté. Le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, côté euh, basketball. On rappelle que la Côte d'Ivoire, Sud-Soudan, Égypte, cap Angola, ñoom ñoo war a dem représenter la euh, le continent. Malheureusement, le Sénégal va attendre vieux kàddu gu mujj bon. semaine prochaine on aura le temps de développer encore. non juste pour euh, rebondir ci Grégoire li mu doon par rapport ak làmb ji man démb bon je devais falaa naroon dem avec une délégation représentée yi le ministre des sports mais heureusement ba yegguñu ndax ci yoon bi lañ ñu ne xeer yaa ngi taw. ñu <laughs> leen bàyyi leen sàmm ji sama oto. parce que vraiment il faut ñoom ñu bàyyi xel waa làmb ji que ne am na yenn yoo xam ne dafay dem bay soof Sénégalais parce que le fait que violence tout le temps du doonatul affaire de làmb ji ak état bi mais làmb ji ak sénégalais yi parce que sénégalais yi lu ñu bëgg spectacle mais soxlawuñ ay xeex ay génn fii jam kii ay sotti naa ko tel coow li nee na kur les gens n'ont pas besoin de ça le sport c'est un facteur de régulation sociale dafa war a boole mais pas féewale mais li ñuy gis léegi ci làmb gi vraiment. doy na waar dafa doy waar quoi. merci beaucoup en tout cas daal di encourager waale sama jeune frère yi. ne leen nañu siggi waaw défaite défaite la non qualification non qualification la il faut se ressaisir et puis ils ont l'avenir devant eux. Mm-hmm. ay xale lañu wute nañoo ak suñu genre bi quoi. <laughs> alors Cheikh Oumar kaddu gu mujj gi on vous a vu avec un trophée trophée bi lan la. bon trophée bi euh, <laughs> gars xam nañu ko ah. Mm-hmm. yow sax xam naa ni euh, Lamine Diadio ah meilleur joueur euh, local ci saison deux mille vingt deux. nga xam ni je suis son manager donc il est du côté du Soudan actuellement mm-hmm. à di ko nuyu di ko jaajëfal donc di remercier aussi ANPS ci trophée bu ko déjee di nuyu. sa famille aussi depuis la Gambie yaayam sëram yeeg ñëpp donc di ko wax ni voilà <laughs> yeneen trophée topp bi merci euh, ah waa gaynde gi <laughs> <laughs> waaw kaddu gi moom c'est un plaisir donc euh, de dans un plateau très relevé tey moom j'ai j'ai beaucoup appris ah donc euh, voilà à côté de Adja qui n'est plus à présenter tu as un travail excellent aussi ci presse u ah waaw lan kan bi <laughs> non sañ-say laa doon wax <laughs> sañ-say moom doon naa ko wax moom macha allah <laughs> donc di nuyu sama gars yi Grégoire ak euh, Babou di nuyu grand bi vieux mm-hmm. je pense que tey am na lu bëri lu ñu xamal ci basket bi mm-hmm. donc di di remercier tous les téléspectateurs kër gi moom léegi suñu kër la ko absolument koor gi métti na <laughs> mais tu tiens quand même ñu ngi lay ñaanal lépp loo ci ñaan rek yàlla na la suñu borom nangul. <laughs> anataan naa ngalax bi comme comme comme <laughs> d'habitude man maa ngi xaar sama sama ciwo kàddu bu mujj bi. waaw ja euh, c'est un plaisir parce que yaakaar naa ne waxtaanee tàggat yaram loo xamante ne dañ koo bëgg la donc euh, bu ñu ñëwee fii rek. Euh, pour man dañuy def li nga xamante ne tey moom mooy suñu bëgg-bëgg alors di jéggalu tam bu fekkente ni kàddu yi ëpp na wala bokk xaw na ñagas ci ñenn ñi di di jaajëfal lu baax a baax également suñuy invité. di wax. <laughs> ak a nag bu ah, ah, wax nee na nee moom mooy Boga plateau bi ah, muy <laughs> mais nag Adja xam nga rek. am na loo xamante ne tam du man quoi askan wi la donc euh, li askan wi wax bu kii nee na xamul dëgg mais li ñëpp wax mooy dëgg daal. <laughs> dëgg donc euh, jàppal leen ma loolu rek. donc euh, di di wax ne concert yu bi tam vidéo yi ñëw na mais xëy na général la ñuy bañ moom. <laughs> heureusement ba xam wu ma ko dama teel a ñibbi. na nga baax. Ah. yow yaa vrai international. <laughs> gi mujjee Adja mooy di wax ne euh, di wax mbëri. Mhm. CNG footul. mu weddi na laaj Zarko ak Ada Fass te xam naa ñi dinañ ci seen wàll bu yàgg dara di di di jaajëfal ñi nga xamante ñooy sunu gan yi ñëwoon tey fi teewe li nga xamante mooy euh, émission bi di jaajëfal ñi ko doon seetaan di wax ne euh, journée sportive mën nañ fecc dem Adja mu furutu di murule Adja ak furutu di de ah danga baax merci beaucoup euh, c'est tout le plaisir di servir euh, team bi yëpp donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine merci Penda merci beaucoup Pape Diouf grand merci à Ibou Kouyaté on vous rendez-vous dimanche prochain même heure même chaîne toujours avec le même plaisir jërë ngeen jëf